ci ngeen bokk dikkati la de. ndax sax Alioune Sall ci émission bi la bokk. waaw ci laa bokk incha allah maa ngi bokk ci émission ci ngeen bokk mag gaa di ci ngeen bokk. am ci nga bokk man bokk sax ndax la Alpha Camara rajo Dunia RDV ànd ak yéen ci seen émission bi di ci ngeen bokk. nuy woo suñuy bokk ak seen bokk ñun ñëpp ñu ànd te ñëw bokk. man la Mamadou Lamine Bara Dieng bu Walf Fadjri maa ngi déglu émission ci ngeen bokk ci laa bokk. man Babacar Sylla borom islam wal xaya maa ngi déglu ci ngeen ngeen bokk ànd ak Souhaïbou Diop. man Boubacar Diallo soppey sëñ Souhaïbou Diop sëñ Souhaïbou sopp naa la lool naw naa sa dal ak sa tey ak sa liggéey. DJ Boubs ci laa bokk. bokk yi émission ci ngeen bokk. man Fallou Cissé ci laa bokk. ndeke yoo comme neex nga bokk. ku mu neex nga bokk seen émission ci ngeen bokk dellu seet na ni ngeen koy amee samedi ju jot ci waxtu wi ñu ànd ak yéen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum actualité biir ak biti réew ñi fi dalal ay boromi xam-xam di fi dalal ñoo xam ne ñu Sénégal yitteel lañu ñu fa yéene waxtaane ci lépp loo xam ne rek xam ngeen ko euh, ci réew mi euh, tey nag ñu dalal fi koo xam ni ku ñu ràññee ci réew mi ak ci réseau sociaux yi mu am benn gëm-gëm bu mu gëm ba àgg ci fi mu ci yegg loolu lépp dinañ ci ñëw ñu waxtaanee loo xam ne soxal na ko lool ci wàllum réew mi loolu lépp dinañ ci dugg ñu ànd ceeg nag ki nga xam ne mooy Euh, Baye Assane Mesere mi nga xam ne moom laay àndal ci émission bi la di ci ngeen bokk ñu dooree woon ko dippi ci rajo ba tey jii ci télévision Baye Assane Mesere. waaw koy jërëjëf Sohaibou ñoo ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di nuyu sunu mbokk yi nga xamante ni émission bu fi am rek danañ ñëw ànd ko ak ñun. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si rafetlu gi partage geek commentaire yeeg kër yi ñu dugal ak yépp rek ñu leen di siyaare baax te di leen gërëm. di gërëm nag tey jii sunu gan fas yéene ànd ak moom bala ñu ko gërëm sax dañuy bàyyi ba def émission ba pare ndax xam naa ne émission tey bi moom. mais ay jéego jóge fu sori. Ah, lakk essence. ànd ak i nit. na bàyyi ba émission bi jeex rek. mais gërëm ko. gërëm ko rek. mais naa ko nuyu rek ko maa ngi lay nuyu mu ne maa ngi lay fay ñu bàyyi émission bi jeex ba xam ñu mujjee ba xam maam balaa émission bay jeex diggante bi ngërëm ngërëmante dina fi xaj wala du fi xaj. non fii moom moo fi xaj. ah wóorul de bàyyi émission bi jeex a pare <laughs> waaw te ki ñëw. ñëwul moom kese. <laughs> li waaj li waaj naan ko koo àndal man sama caméra laa gis ak moom. <laughs> sama caméra ak moom laa gis gisuma keneen. waaw waaw ah. baax na léegi kon léegi kon dalal ko. am am na am na keneen koo gis. laa gis sama ginnaaw man écran laa gis. waaw euh, ah, écran garaaw léegi dalal ko. waaw Serigne Xaam ñoo ngi lay nuyu. Mhm. te di rafetlu sa teewaay fii si kër gi nga xamante ni sa kër la. Mhm. ah ñu ngi lay nuyu bu baax te di la dalal amaat mbégte nag ak contentement bu rëy si toog ak yow bokk ak yow plateau ñu fas yéene waxtaan comme ni ko soxna bu waxe lu soxal réew mi rek. Mhm. Ah, la ñu fas yéene waxtaan ak moom moom nag wax dëgg yàlla jàmbaar la daal. Mm. <laughs> jàmbaar la te si biir waxtaan wi. Mm. xañ na ñi seetaan danañ xam ne jàmbaar la. sëñ Xaadim ñoo ngi lay nuyu bu baax. ñoo ngi lay fay bu baax. di mm. wax alhamdulilahi karimi silminan ala istiqaali bi furoodi wa sunnan. sakartuhu li annahu qad saqani li wattani bihi nafa ma xaqani mm-hmm. jërëjëfati borom Tuubaa ñoo ngi ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxal Bachir mm-hmm. alxalifatu am bi tarixatil muridiyya suñ borom yàggal ko fi te mu ànd ak ko góor mm-hmm. waaye di ñaanal bu baax moo du mbenn Fall ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp yàgg ko gunge ci liggéey bi waaye di ñaanal bu baax euh, ñi nga xam ne ñoo ñu meññ suñ borom jaarale sunuy roo ci àdduna muy sunuy waajur ñoo ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom yàggal leen ci suñu kanam seen i cër noonu ñu leen koy ñaanal noonu lañ koy ñaanale mbooleem waa mi ak waa bitim réew mm-hmm. waaye it dina ko ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen laa seqal plateau bi mm-hmm. di ko tàmbalee ci sama xarit euh, sëñ bu mm-hmm. ak euh, waa ji toog sëñ bi toog waaw lu mu war bi toog waaw sëñ la war a wax waaw sëñ bi toog di sëñ Assane Mesere waaw waa ji toog boo balaa émission bay jeex boo demee sëriñ dinaa ci xam dara Hmm. waaw bu fekkee sëriñ dinaa ci xam dara. très bien ça man Assane il faut ab sëriñ ñëw fii lancel ma ko défi dëkkonteeg moom. waaw tey maa moom la. <laughs> alhamdulilah dara naqari. alhamdulilah dama ko waajal door xam naa ñaar ñi taxaw ci ginnaawam gisu leen. gisu leen. waaw moom moom. mu defee ndar dul kenn. <laughs> Assane ñi taxaw sa wet loolu gisu leen de. Ah, ah. loolu loolu tax nga daj leen de. bis boo fi laajee laaj wala nga wax fi loo ah. da ngay jékkee gis ku lay mbéj doo ko te du ma ko gis. déedéet. déedéet naa télé day daa rax de. Ah. moom moo fi woo ne. waaw ah, dëgg la. baax na man la woo waaye ñi ma àndal gisul. mais ñooñu ñime wuñ caméra. Ah, baax na ñime wuñ écran. caméra écran doo leen gis. Hmm, ñime wuñ écran. xoolal xamal li ngay wax rek bu baax. waaw na ñu féete ginnaaw. jërëjëf bu ma waxee dara sama yumpaañ yaa ngi toog di seetaan. sa yumpaañ yéen foofu ngay làqatu. sama yumpaañ yi. foofu ngay làqatu. waaw. <laughs> yow ngay làqatu daa faral di. Ah, yàlla. <laughs> mu ngi commencé delloo am. waaw man su ma yumpaañ yi samay xarit. non mais bu dee sa yumpaañ boo demee ba di sa yumpaañ moom nga jox ko cër. parce que sa yumpaañ ki leen yilif. sama yumpaañ yi nag ka leen yilif ñoom kañ yilif. ñoom ñoo ko yilif. ah. ah Assane. ah, ah <laughs> Assane. waaw. ay kon mi ngi noonu Serigne Khadim Ngom la ñu dalal tey muy doomu daara doo doon koo xam ne itamit euh, ci li nga xam ne ca la fare mooy li nga xam ne moom laa doon wax Serigne Abdoul Aziz Diaw démb muy fare ci daara ji fexe ba dem wuti ji euh, li nga xam ne mooy nan lay def ba nit ki génn ci coono yi mu nekkee ci digganteem ak li ko dal ci wér gi yaramam moo tax bi ñi di jàngi nekk mécanicien ñi jàngi nekk tôlier ñii jàngi nekk leneen ñoom dañoo préféré dem jàng ji nan la ñuy génne nit ci njàqare loolu nag Assane euh, tax na dinañ laajte kan mooy Serigne Khadim Euh, tey sëñ ma Xaadim Ngom mooy kan euh, lan moo ko dugal ci lii xew ndax moom ñaara ba ñett nga gis ko ci tiktok am muy commentaire ay mbili politique ak def yëf dégg naa ko sax mun day euh, porter plainte waa régime bi te dégg naa ñu ni patriote la lu tax loolu dinañ ci dikk président tas na assemblée nationale dinañ ci dikk incha allah ñi nga xam ne itam ñu ngi teel a yooxu gouvernement bi te amagul juróom benn weer loolu benn sujet la daan ci ñëw waaye ñi nga xam ne ñoo jël mbëkk mi di tukki tukki bu jaaral yoon dinañ ci laaj sëriñ bi moo ci xalaatam ak it solution bi lan lay doon ñu ñëw ci waa këram wala boog sax suñu waa kër mooy kër yi ak soxna yi naka leen lañ leen mën a yoree ak nu ñuy def ba yor leen ñu ne suñu wette duñ buuse loolu yi di leen ci ñëw ndax bu njëkk mag ñi dañ daan ñaar ba ñett ba ñeent kenn du sëqat kenn du buuse moom nag am na nuñ ko gisee loolu su boobaa sab sujet la waaye mbiri ndol ndol ak commune bu euh, ngaay mexe wala boog ngaayo xem waa dinañ ci ñëw incha allah ci ay réalisation yi ñu fay gis kan moo ne ci ginnaawam ba tax muy def fii ndax daa pare pour politique ba tax mu jël acte di defar ay courant di indi ay taleek yu ne mu dugg ci loolu dinañ ci ñëw ndax bu njëkk ab sëriñ li ñu ko xamee woon mooy euh, kaala kurus satala jaada léegi nag lu tax mu dugg ci ay mbiru courant loolu Assane Mesere sa sujet lay doo dinañ ci dikk. sëriñ xamuñu woon ay tabax ak i saal ak i ventilateur ak i clim. <laughs> ah man <laughs> léegi dañu dooree ko ci kan mooy sëriñ xaadim Ndiassane. waaw sëriñ xaadim Ngom. Hmm. kan mooy sëriñ xaadim Ngom. waaw xanaa séeréer la moom. Hmm. waaw sëñ Fallou nee na doo nga wax bu baax daf mel ne nga sori sa micro nag. xam naa ni. séeréer la séeréer waaw hmm. euh, fa. jàngee ndakaaru jaar ci daara yi nekk daara yi ndondal. comme ni nga ko waxee léegi mu nekk ci commune Ngayoxeem. Euh, village de Ngonin mhm. euh, bi foofu laa juddoo euh, en 1987 mhm. bi ma fa bàyyeekoo jaar naa fu ñuy wax daara ju ñuy wax waalo fa laa alxuraan bi ma fa jógee ñu xaw na léegi lool nag hmm. xaw na doy waar ñu jël ma indi ma ci sama benn waajuru ju góor yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana sëñ Saas Babacar Ngom hmm. Fass Mbaaw foofu laa defee sama certificat entrée en sixième dem CMM Momar Marim Diop bu mhm. yëmbal defa sama brevet ñëw lycée Thiaroye foofu laa jàng defee sama cycle secondaire ak première en s mhm. bi ma paree lycée Thiaroye nag ci laa commencé dugg ci mbirum jënd ak mhm. jaay waaw ndax jotumaa yeggali njàng mi euh, bi maa dem ba premier ma bàyyi commencé di ambulant di jaay di wër. dama daan ah, jaar nga ci ambulance. jaar naa ci ambulance dama daan dem ci région yi ay Casamance. Mhm. ma daan dem ba ay Tamba wër di jaay ay rajo ay ay ay yëf mhm. yi. Mhm. nangam nangam yooyu. bi mu demee ba xaw a tane ma ñëw fii dellusiwaat Fass Mbao. rue Jaara nekk naa fa yor fa porta prêt di jaay en même temps ay café Touba. Euh, foofu ci rue Maam Jaara tëli bi. nekk naa fa. bi ma fa jógee foofu laa takkee 2008 ma takk soxna. nekk fa mu yàgg ma delluwaat ci dëkku cosaan ba. Mhm. yóbbu fa soxna si bàyyi ko fi dellusiwaat ñëw géejawaay nekk fa PA yi pharmacie PA yi. daan yëngu ci wàllu njaayum bagaasu conteneur ak yooyu. Mhm. ak xeet yooyu bi ma demee ba njaay bi xaw a doy waar ma bàyyiwaat ko fa dem fi nga xam ne mooy euh, mbuur. Mhm. ci njaayum fëgg jaay bi. nekk naa foofu mbuur di jaay fëgg jaay. ay dàll dàllu bal yi di ñëw kolobaan di ko tànn di yóbbu mbuur di jaayaat yore puus puus yi fëgg jaay dama daan wër mbuur ñi may wax naa bu ñu ko gisee dañ xam li ma wax mhm. wër naa fa jaay naa fa ba tàyyi bi ma demee it ba jaay bi xaw a am nu mu demee waat ma dellusi waat géejawaay mhm. bi ma dellusi waatee géejawaay euh, li ñuy wax euh, maanaam ndabar jaar naa ci mooy oto mbalit yi bu ñu mosaa romb valise yu yàqu yeeg vélo yu yàqu yeeg yooyu da kar jënd ko ay yoo prix yoo xam ne mhm. du ma ko wax ndax ba léegi am na ñu ci nekk su ma waxee li koy jëndee ñoom amaana léegi ñii mën nañ koo seetaan xam ne loolu la jar kon mhm. prix yi ñu ko daan jënde waratuñ koo jënde loolu mais li ko daan jënde daal daan xéewale mhm. suñu demee ñu dem defaraat raxas defar ba mu jekk yóbbu essence tali bu mag jaay wala ñu yóbbu caaroy jaay wala ñu yóbbu fa nga xam ne mooy padduwaa jaay ko fa su guddigee boo jaayee ba 19 heures yenn saay nga wàcc wala nga dem ba zéro heure wàcc boo xëyee suba si nelaw ba 10 heures ñëw Euh, ci maquette bi ci portable yi am na ndaw soo xam ne temps yi maa ngi gis sax mu amoon jafe-jafe bi ak li rango waaw waaw da daan ñëw foofu ah ndax moom jaaykatu crème la woon waaw da daan jaay crème la ci maquette bi rek caaro yi waaw caaro yi léegi doon jaay portable yi nag portable yi nga xam ne am jafe-jafe ñu koy wax ndabar mhm. moom la daan rango ci ñun bu ko mm. rangoo bu bàyyee mu jaay ko ñi nga xam ne classe ak bàyyi seen nga xam ne xamuñu téléphone ah, yi foofu la jógee foofu la dikkee waaw macha allah foofu la dikkee daan rango yi téléphone foofu mm. moom ak ñoom yaasin Colobane. foofu yëpp bi ma génnee foofu nag euh, laa tàmbali yëf yi commencé ma di ma dikkee di ma tere liggéey bi. Mhm. su ma liggéey wéer damay am jafe-jafe damay am jafe-jafe jaay gis nga baaram yëpp. benn bu ci nekk nga nekkul si sax en ah, kii. Mhm. mais damay su ma toogee ci kër gi di jàng xasida di jàng alxuraan di wér da dara du ma daal. Mhm. waaye su ma liggéey wee damay tawat. est boo liggéeyee tawat su ma liggéey wee damay tawat. Hmm. mais su ma toogee ci kër gi géejawaay dara du ma dal damay ne si jaam ak salaam. Hmm. ma ne ah xëy na peut-être que lii la suñ borom namm ci man ci laa dem bagage yi ma yorul yëpp ma joxe ko ba mu des saak bu ñuul bi may faral di yor ñaare da koy gis moom kese laa yoroon ma ñëw ci kër gi toog. Hmm. commencé nag féete ci xasida ak alxuraan ji boobu amuma fu ma jëm mais boobu xëy na sonn naa tawat yi jafe-jafe yi àdduna yi nangam ma ñëw toog doog sama digganteeg Sëñ Tuubaa. ko man maanaam li ma la liggéeyee daf fi ma jaar. nga xam ne daayira bu jotoon coono bi ma ci doon daj fu mu mus a nekk nag taxawal naa fa daayira fu mu mus a nekk gox yi mu mus a nekk yëpp taxawal naa fa daayira sëñ Tuubaa macha allah da jàng alxuraan fu mu mus a nekk taxawal naa fa cantuk sëñ Tuubaa goo xam ne at ba pare asamaan set ma jaay samay bagage faye ko bor terewul bor yi topp ma ba damay mujjee génn ci gox boobu daw dem ci beneen gox di liggéey di fay borom mm-hmm. ci ginnaaw gi nag laa tàmbali liggéey boobu di wàllu njàng alxuraan ak xasida mhm. ak tarbiyawu sama sama borom mhm. dew ma ci keppaaru kenn nit nag kenn jàngale yu xam-xam bi mhm. waaye dama ko doggul sama diggante ak sëñ Tuubaa ne daal li ma la liggéeyal bu dee am naa ci dara benn bis loo xam ne defal naa la ko mu neex la lii ma nekk nag ma ci génne da nga defal may tawféex parce que moom ma xam fan laay féete benn mooy euh, na yàlla ñëw ak bi ci man ma génn àdduna noppalu wala mu ñëw man ci dogalam bi ma mën a am li ma bëgg ba dimbali jaami yàlla yi. que fa la mbiree dooree. fa la ma def ko 19 jours fukki fan ak juróom-ñeent. Mhm. la xew ca fukkeelu fan ba ak juróom-ñeent ya. Mhm. ci waxtu tàkkusaan du lu may toog sax di ko wax. Mhm. Euh, waaye daal lu mën a xew jëmm gane si na ma. wax naa ak man xamal na ma it ne ma tey doo fanaan ci néeg bi. néeg bi nga nekkoon néeg bi ma nekkoon mu ne ma doo fanaan. bi nga xamee ne ne ma doo fanaan ci néeg bi. aw ma feneen fu may fanaan te tàkkusaan jot na. te xaw ma fu kenn ma ne man fa léegi fa nan laay fan laa war a fanaan maa ngi toog di xalaat loolu waaye yëf yi comme gént la ma dikkee mhm. ci laa toog bay zéro heure ndax daaw ma am lu ma lekk mhm. dama daan bàyyi ba suba si yor yor bi onze heures midi ma génn ki yor sama téléphone yi actuellement dafa ma daan may mburu cent franc ma jënd mburu fukki dërëm diw ci may nees mu may ma kaasu café di daan jaay café ah moo yor sa téléphone yi léegi moo yor sama téléphone yi léegi moom ma daan yooyu waaye moom ma daan may cent ma ko lekkee damay bàyyiwaat ba guddi am na beneen dibiteeri boo xam ne suñu benn mbokk moo fa newoon dana bàyyi ba guddi gi ma dem fa su ma demee ñu may ma dagg mburu fukki dërëm ma dindi ci ñeexu sub bi def ko ci lekk ko pour mën a am lu ma teniraat ba suba ñu mm-hmm. ma ko defee dix-neuvième jour bi ma dem ba zéro heure may génn pour mën a mm-hmm. uti lu ma xewloo ndax boobu sonn naa mm-hmm. ma daje oto police bi muy ramasse ci couvre-feu bi eh, eh. couvre-feu bi ñu génn bii jigéen génn nii 2019 bii ñu génn 2020 bi hmm? waaw couvre-feu sama sama rakk bi topp ki topp ci man ki topp ci moom. 2020 bi muy takk ñaareel ñàkk paas bu ma jëlee géejawaay ba dem sébi xotaan ci takk gi 2000 francs moo taxoon ma. 2020 bi jàll nii. 2020 a yàgg mais moo yàgg mais am yàggul waaw. daal li nga wax ko benn xale barki démb la ma ne ko ut moo yàgg mais am ah? ci lañ ma ramassé yóbbu ma police golf bii. ma fanaani fa falaa eggalee istixfaar yi ma doon def ak yaa ma doon def yëpp ci biir police bi. est que mais benn chrétien moom ma jàpp. ndeysaan bi ma yóbboo ñu fanaanal ma foofu ma taxaw di julli di la di wér di nangam di jàng xasida ci kaw nag bi demee bu asamaan set ñu ñëw laaj nañ ma sax pour ma fayat nangam waaye damaa lànk ndax sama xel dem na ci liñ ma waxoon ne ma doo fi fanaan ma xam ne su ma leen fayee ñu wàccee ma oto bi li ma bëgg duma ko am. ma mm-hmm. bàyyi ñu yóbbu ma police ñu tëj ma fa. ma fanaan bi ma jullee asamaan sax sama tànk yi dañoo neew yi ba toll fii bi nga xamee ne kii seen kilifa xëy si na bi ma xoolee da leen ne jëmm ji ko ko fi indi ñu ne ko diw waxtur wi mu ne waaw kooku danga ko mën a indi de waaye kii di li wër wër mooy xam naa ne moom deful dara moom seen kilifa kilifa gi wax la waaw daal di may génne ma génn ñëw mu yóbbu ma biroom jox ma ndox ma naan mu jox ma ndékki ma ndékki ba pare mu génne ñeenti junni may ma isaan daal leen dugalaat ko ci oto bi ngeen delloo ko fi ngeen ko jëlee woon dugalaat ma ci oto hmm? waaw ñu ma ci oto bi indi ma koñ bi bi ñu ma wàccee ci koñ bi nag ñu gis ñu di ma wàccee ak oto police bi ma wàcc dugg sama kër. Mm-hmm. léegi ci guddi googu faf yàlla suñu boroom dogal sama benn xarit boo xam ne libaas bu sunu Sunugal 24. Mm-hmm. amoon reportage bu mu def si woon foofu ci affaire dragon boobu njaay dragon bi amoon ca koñ ba géejawaay mm-hmm. mu def si ko foofu nag mu tasante ak man. bi mu tasante man nag ñu taxaw di ci problème histoire bi ñu laaj ma ci ma am nu ma communiqué. mu ne ma yow pourtant bu ñu demoon sa kër nga def émission ci problème mu maître El Hadj bii mu am nii nangam nangam bon ak ni ngay communiquer nii jàmbaar nga mën na am lu mu def ci yow mais justement bi ma bi loolu amee. Mhm. mu ñëw sama kër ñu def ci communication DG bi woo ma Alioune Top. Mhm. may dégg. ma dem sunu gaal nekk fa huit mois di def émission di waxtaan ci Sëñ Tuubaa. macha allah mais su may waxtaan ci Sëñ Tuubaa yenn saay xam-xam bi dikkal ma ci biir émission bi ma am lu ma dugal wax ko. Mhm. par la suite nag appel yi commencé. Mhm. di dàqante yàggul dara ci biir deux mille vingt bi. Mhm. su ma xëyee sama kër dootu ma mën a defee émission ndax nit ñi fu ne la ñu jógee di ma seet si. est que mu am ci biir koñ bi ñu dem ci police bi ne leen sëñ bi daa mel am na lu muy jaay. Mhm. waaw nit ñi ñëw ci kër gi rek. police ñëw sama kër def enquête vérifier ma xool ma gisul dara. ndax nit ñi walwali ndax nit ñi walwali ñu ñëwee ci man. te xamuñu lu leen di indi. te këruk locataire la. benn néeg laa fa am mais finalement yàlla dogal maak ñoom ñu dem ba jaxasoo ba macha allah euh, su ma la waxoon kii ma luyoon néeg bi yooyu di nga ko xam ndax seen mbokkum Tuubaa la tey it xam naa ne jaxasoo ngeen war ngeen xamante bu baax falaan nekk nekk fa nekk fa ma dem ba mbooloo mi xajatul fa mhm. ci kër ga mhm. ma daal di ubbi beneen siège mhm. def ko Thiès parcelle unité 2 c'est ma dem ba nit ñi xajatuñ ci suuf ma yokkaat ca kaw ba fii may wax ñaari ñaari kër yi ci kaw ak ci suuf yëpp bu rendez-vous jotee day fees dell. si macha allah ginnaaw gi loolu nag ma ne xaar ma wuññeekuwaat nag sama cosaan comme maa ñaanoon yàlla lu ma terale jaami yàlla yi. Mhm. dogu ko ci barki sëñ Tuubaa jox na ma ko li ma yàlla di sédd sañu ma ko lekk bàyyi samay bokk. si li ma njëkk a def mooy def ca dëkk ba loo xam ne ci dëkku séeréer nit ñi mosoo ñemee def étage. muy lan étage. nga étage fa. ma étage fa ma ne ma na ko fa def. kenn mosu faa ñemee tabax ci télé laay wax. lu tax mag ñee ko bañoon wala. boo ko mosaa dafa am askan boo xam ne ñoom doo nga fa daan ami nag ñoo fa daan def def taawax taax mu mag mais boo ko fa mosaa def moom doo dëkk ci biir. loolu ko nekk man xam nga lii muy wax daanaa ko dégg suñ kii yële ñu naan am na ci même famille yoo xam ne sax bu ci kenn tukkee sañu def nangam. waaw sañu ko doo ko gis léegi nag ci ginnaaw gi loolu euh, maa ko fa njëkk a def. Hmm. sant yàlla bu baax bi ma ko doon sama waajur xawoon nañ cee jàppante ak moom waaye naxante na ak moom ba def li mu bëgg a def ginnaaw gi nag comme jaar naa ci carrière xam naa jafe-jafe li ci nekk ak lépp moo tax ma jël engagement bi ma jël ci néew di doole yi ak ñi bëgg a man te mënuñu ak ñi yàlla séddul ma daw laxasu ci seen kaw wéññi ko ànd ak ñoom. macha allah lii moo indi engagement bi. waaw mais man bu ma gisee ci image yi. waaw. Euh, kër gi may gis nekkul dëkk wala day ñaar. ba dëkk ba la nekk mooy résidence la Matlaboul nii noir blanc bi am na beneen bu may gis wala benn la. waaw noir blanc bi moom moo nekk euh, fële. Thiès moo nekk déedéet Baari Ndondal. waaw euh, beneen bi moo nekk Thiès. Hmm, d'accord waaw parce que su ma teeloon programme sax fàllu naa ko jox fàllu moon parce que am na bu may gis dama foogoon. boobu moom ci réewu taax yi la ne. déedéet. dëkk ma nga fële. dëkk balaa ko tabax. macha allah waaw mooy bi nga gis ci TikTok bi. waaw mooy bu bàyyi faale bi rek. waaw waaw waaw. ma nga dëkk ba waaw. macha allah mu ngi dëkk balaa ko tabax tabarkàlla waaw léegi Assane gis naa nga ni lii de mooy noo ko tuddee léegi nga ni lii mooy ak taxañ loolu loo tuddee taxañ lu tax nga ni taxañ taxañ kii nga ma lu ma si ëppal nga xamante ni fi la nekkoon di yor ab puus puus waaw nga gis nit ku baax ñaan kii la nekkoon di jaay ay fëgg jaay mm-hmm. wala ñaan kii di di kar oto yi mbalit yi ñaan kii nekkoon fii di jaay ay téléphone mm-hmm. mais loolu lépp daañu waxal leen nga xamal leen loolu sag la mais du loo xamante ni da ngay mën dara ñu la koy wax ngay mer mais da nga ko war di fàttali nit ñi. Mhm. di di wax jaar war di fàttali nit ñi man de fii laa jaar. Mhm. ba egg si fii ma egg si léegi nag keneen ki toogoon wax ni kii de pourtant daana jaay fëgg jaay léegi kon moom moo leen ko waxal boppam. Mhm. wax leen ni kat liggéey bu nga xamante ni bu dul sàcc liggéey naa ko ngir lan bëgg a tekki bëgg dimbali samay waajur ak dimbali ñi ma tane loolu la wax si carrière am lépp man looloo ma si gën a neex mooy fi mu jaar ak li mu dund nga xamante ni la xam ne liggéey yooyu yëpp jaar na fi doonte la mu sa bëggoon amu ko même ni na bu mu wax sax ci biir boo demee caaro buuju maan yi lañ leen tuddee waaw buuju lañ leen tuddee jaar naa ci <laughs> na ne jaar na fa hmm. ba ba jàll te xaj na sax dimbali ko yàlla la ko yàlla dimbalee te xaj na xamu ko hmm. taxañ gi mooy loolu bërki démb la. yàggul kii bi waaw <laughs> bërki démb 2019 2020. voilà waaw 2020 waaw kon nag bu yàlla dogalee ci ci ñeenti at yi daal la sëñ Tuubaa dogal. indi andi dogal bi. ci ñeenti at yi ah, ci ñeenti at yi la ma def nii ma def. parce ah. que nga xam ne dara tëwu ko ci. waaye man jaar-jaar yooyu li ma ko jàppee woon mooy euh, dafa am lu sëñ bi na mën a def ci man te foofu sama xol toj. Mm-hmm. boo gisee sama ree yu bari yi may ree maanaam àdduna laay ree mais reetaanu man nit ñi. waaw même yow booy wax loola ñor sax da ngay. damay reetaan. waaw man àdduna laay ree. Mm-hmm. parce que àdduna dafa mën a may nit ndam. Mm-hmm. waaye dafa mën a may nit gàcce. Mm-hmm. la. ni la mën a maye ndam noonu la la mën a maye gàcce. waaye ni la mën a maye gàcce noonu la la mën a maye ndam. ki nekk nag bàyyiwul xel ñaar yooyu yëpp mën na koo yanu ba àdduna da koy sonal day faf diis ci moom. dëgg dëgg la. nit ki mënul ñàkk jaar-jaar yonent bi gën ñëpp sax am na fu mu jaar mm-hmm. laataa muy toll fii muy toll dëgg la kon jaar-jaar yooyu day neex sax ndaw ñi di ko dégg mm-hmm. ba xam ne ut moo yàgg dama lay jox benn exemple mm-hmm. dafa am waajoo xam ne da doon jaay ndiir su ma ko tuddoon ñu ne diw la ndiir la doon jaay mooy mbuus euh, cent franc deux cent mu di ko jaay di windeelu ba egsi ci benn waajoo xam ne dafa toog ci buntu kees ku péemi bi mu daal di ko ne sama doom kaay mu ñëw mu ne ko man de tey damaa gis cote bi war a génn ci course tey bi nga xam ne bu ñu ko gagné woon dina mot cinquante trois millions ticket bi nag mu ne ah mu ne ko yaakaar naa mille francs la su ma ko daggee xaw ma deux mille dinaa su ma ko tiiree mën naa ko gagné te su ma lay doon mën naa la jox quarante trois millions yi ma jëm ma jël dix yi booy bi ne ko ah ndiir ji may jaay day mille trois cent laa yor ma la joxee mille francs yi damay jeexal te xaw ma kañ laay jaral mu ne ko dama koy gagné jox ma 1000 francs yi ma carte ko. booy bi génnee 1000 francs yi jox ko. Hmm. mu carte mille francs yi gagné 53 millions yi. waaw. yëkkati millions yi. téye ko 43 millions yi mu jox ko borom ndiir ji. Hmm? wax lam defoon borom ndiir ji bi mu xëyee 9h ci suba. Hmm. téeméeri yeer la comme li ñuy wax millionnaire. ndax li ma yoroon yëpp matul junni. téeméeri yeer la waaw waaye bi midi di jot. millionnaire la. xoolal ci ay ñaata at la windeelu di jaay ndiir dëgg la mën daa moom junni xoolal ci ay simili yàlla def ko fi mil dëgg la nga xam ne ut moo yàgg waaye am yàggul suñ borom li mu namm ci jaam bi rek bu hmm. yàkkamtiwul def koy am dëgg la li ci am solo mooy xëy di sabablu dëgg la te dundee sa ngor dëgg la boo ko defee tey Assane Mesere mi fi fii weer mën nga fee nekk milliardaire. ah, ah. Eh, loolu bu bàyyee tooñ. Ah. bu bàyyee tooñ. <laughs> bu <laughs> parce que pour dëggal ko li wax moom maanaam ci ci ay seconde mën nga doon milliardaire. waaw. ça dépend ci nit ñi nag boo leen ko wax dañ naan moom loolu dafa mën a nekk. Hmm. moo tax bu kenn xaat bi. déedéet. la xamuñu dara ba tax nga xaat bi xamuñu xamuñu xamuñu fu yëf yi di jaar. Hmm. suñu borom fi mu bu la bëggee jaarale ci yoonu gaaw yi. Hmm. da la fiy jaarale xam nga nii li ñu jaawale seen àdduna mooy sëñ son yi bu dinaa ci am fu kenn fu mu la fellal fu tuuti. gis nga doomu aadama yi bu juddoo ci àdduna juróom-ñeenti bunti yàlla tëjee ci moom yëpp mooy tànk yi yenu étage bi alalam. Mm-hmm. dëgg la. xam nga xam nga fi may waxee déet juróom-ñeenti bunti yàlla tijjee ci jëmmam. Mm-hmm. moom mooy poto yi yennu alalam ci àdduna. Mm-hmm. juróom-ñeenti buntu yàlla yàlla tijjee ci nit ki. mooy yennu alalam mooy yelu alalam jim war a am ci àdduna. loo bëgg a foofu. maanaam sa ñaari pexe bët yi. sa ñaari pexe bakkan yi du ñeent. ñaari pexe nopp yi du juróom-benn. sa gémmiñ yi du juróom-ñaar. ak sa ñaari suuf. lu juróom-ñeenti bunt dëgg la mooy poto yi nga xam ne mooy yanu sa alal ci àdduna am am bii da nga koy dégg daw wuti ko bii nga gis ko daw wuti ko bii xencu la nga daw wuti ko bii nga dégg ñu waxtaane ko nga da wuti bii nga xam ne su ma demee sama wërsëg di caani sama biir nga da wuti ko gis nga nag moo tax seytaane bu lay jàpp te bëgg laa xañ alal li muy njëkk a def mooy tànk yooyu la amal problème mm-hmm. moom lay daw sëkkatal moom lay téye ñii di tax ñii di muuma ñii silmaxa ñii am di si ñii di amee sinusite ñeneen ñi am jafe-jafe su ko defee sa alal ci lay jaare di tax samba kisil ma xam moom am na loo xam ne mënatu ko kii tax am na loo xam ne mënatu ko wallaay ki amee sinusite nga xam ne boo taaloon fii dara sax day am problème wala yéen poussière ange am na loo xam ne mënatu ko mhm. ki muuma noonu ki am problème mu lekk noonu mën a yor ay milliards ay milliards dootu ko saf daal seytaane bu lay fëkk tànki fii ne étage boo ko bëggoon a daane rek wéral poto yi nekk ci angle yi <laughs> Eh, wax na la jaar-jaaram boo xam ni eh, la koy tënk mooy li kulli sabaarin sakoor muñ kat boo gis rek sant lay mujj kon bokk fi mu jaar muñ na ko eh, macha allah yàlla barkeel. léegi nag Assane. Hmm. ñu daal di dugg ci lan moo ko dugal ci yi mu ne mooy mu ngi ci TikTok bi. Hmm. te ci lii mu nekk ko xool rek da sa xel dafa am fu muy dem muy nitu daara la wala bokk mu ngi ci millier boo xam ne kat. tradipraticien la wala sëriñu ñaan yàlla wala mi ngi faj aajo ci loolu la nekk lu ko dugal ci politique bi nag ci a yoon la woo xam ne boo ca jaaree mën ngaa suur say tànk diree ko jëm ci gaa comme ni ñu koy waxee wala dafa bëgg a samp boppam ndax gaa ko am leen ceeg ñoom ay colère mën naa am di nga fi yàgg lool ak sa teranga boo àndul ak nguur ñaari dañ ñaan dañ lay xeex lu ko dugal ci lii ci politique beeg def yëf daal loolu lañ bëgg a xam waaw sëñ Xarim daanaka laaj bi sony bu laaj na ku ñu déggandoo ko <laughs> lu ci eh, mbirum politique laa lay wax direct. waaw xam nga politique maanaam Sénégal boo fi nekkee di wax ci luy doxal réew mi ñu ne da ngay politique. Hmm. waaye politique moom ñaar a koy def. Hmm. un homme d'état et un homme politique. Hmm. homme d'état mooy ki nga xam ne intérêt yi réew mi yëpp moo ko yitteel. homme politique mooy ki nga xam ne intérêt yi boppam moo ko intéressé man su ma demee bay dugg ci mbirum politique. di ci wax du ngir sama intérêt yi bopp. xam nga lu tax man état mënumaa fay. dégg nga seen son yi. waaw état mënumaa fay. Mm-hmm. xam nga tax état mënumaa fay. Mm-hmm. tey boo seetee li nga doon wax léegi wàllum taxañ. ci ñeenti at yi. Mm-hmm. li ma fi réaliser am ko fi. ak li ma fi def lépp état mënuma koo jox. Ah. wala bu jàllee nañ ma audit comme ni ñu def gars yi. <laughs> Ah. kon xam nga kon xaalis dugaluma ci. ndax boo seetee li ma fi réalisé. Hmm. ak li ma fi am ak li ma fi def. ci quatre ans yi su ma xarit ak moom dañ naan moom mu nekk sama man état mënu ma fay salaire. yow déedéet li may am état mënu maa fay salaire. Hmm. vingt et un personnes ñooy xëy sama kër. Hmm. ñooñu personnel sama personnel vingt et un personnes fa nekk. ñëpp ci man la ñu xëy léegi nga baalu sëñ Xaadim léegi euh, sa pour sa sécurité bi ah. wax waa ji mu tëj bunt bi léegi ah, euh, dañuy liggéey euh, chef si suuf man nga ko wax ne ko mu mu mu kii voilà man nga mën nga fermer port bi sinon day indi écho ci affaire bi mm. wax ko mu tëj bunt bi nekk gars yi wàcc nañ mm. mu bàyyi walla xel kii bi ah. mm. voilà parce que wax jaa ngi ñëw fii nee ko mu dem voilà kon tey ñu ngi dalal sëñ Xaadim yaa ngi woon rek ci maanaam Macky Sall wala ku mel ni moom wala état mënu la may kon li may am kon politique xaalis dugaluma ci mhm. aw tur dugaluma ci xam nga lu tax tur dugaluma ci mhm. milieu bi ma nekk ci nga ma xamee ci la ma keneen xamee te ci biir réew mi ak bitim réew amul ci fenn fooy taxaw tey taxaw ni sëñ Xaadim Ngom borom jaaro bi te newuñ la xam naa ko mhm. partout dans le monde nag te état siiwalu la déedéet état siiwalu ma dégg nga euh, état mayu ma xaalis. Hmm. ah loolu est-ce que audit yi ñoo koy wane. gars yi ñu ngi bëgg audit de. Ah, waaw man de boo auditoon ba suba it doo gis si man lenn lu. ah tout moment ab politicien mën naa wax daan sama xaalis ci kii laa koy. <laughs> non non man dama jaxasoo ma ak ñoom sax. ah déedéet jaxasoo ma ak ñoom. Ah. ci télé laay wax. Ah. ba pare it li ma dugal ci politique yi. Mhm. mooy damaa xam problème yi Sénégal nekk. Mhm. te yàlla jaamu yàlla gi gën a gaaw mooy jaamu yàlla ci biir jaami yàlla yi. nit ki boo ko fonkalee alalam mu fonk la. dëgg la soo doon tukki tey bàyyi sam xar ci kër gi dem am ko des ci kër gi di toppatoo xar mi ba xar mi rafet lool macha allah. yëg boppam di waddi waddi boo ñibbisee kooku doon toppatoo xar mi mënoo koo yemal ak koo xam ne doon lekk di bàyyi xar mi. dëgg la wala du dëgg. la dëgg yàlla noonu la mel ak askan wi. Mhm. dëgg gis nga ki mu jox tey pouvoir kaddu. Mhm. jox la dooley poos jox la xam-xam. jox la am xel yow sa àjjana ubbeeku na. waaw la. li ci des mooy dugal caabi bi tijji. mooy lan xel mi xam-xam bi dooley poos ji dégg nga. Mhm. ak làmmiñ wi bu ko jël jël ko comme arme di ko gérer ak askan wi. mais jël ko di ko jaamoo yàlla. Mhm. man loolu moo waral sama làmmiñ wi ma ciy wax lu tax askan wi di am jàmm. Hmm. sama dooley poos ji ma ciy génne di dimbali askan wi. waaw sama xel mii di xalaat su ma xalaatee automatiquement damay génn wax kenn mënuma maa tee wax. mais ab taalibe mais ab taalibe ñaari su daan wax ci daara ji mbokkee ko njëkk ni ko génnal ci ñii te liggéey sab liggéey est-ce que loolu arrivé wu la ñu naan la génnal ci politique be génnal ci réew mi te yam ci sab liggéey. waaw loolu départ bi doon nañu ko wax. Hmm. mais xam nga nit ñi boo ne bëreet di dem te xamuñu fi nga jëm dañuy daw di la kar hmm. mais yow mi am fulla ak fayda ak di dignité ci sa bopp. yow yaay xool xam ne man fee laa jëm te fi ma jëm lu dul ngërëmal yàlla soxalu ma nga daw wut loolu man bi ma jógee départ di dem dugg ci mbirum politique di ci wax ngërëmal suñu boroom laa gis si biir li ci dugal le président Ousmane Sonko man moo ma ci dugal hmm. mooy damaa xam askan wi ndax bul fàtte ne gis nga assemblée nationale bii ñu tas hmm. damay wax ne maanaam balaa ñoo yegg ci élection askan wi nit ñi war nañoo waxtaan ak ñoom ñu wax leen lan mooy assemblée nationale. ak lan mooy njëriñ li. ak lan la mën a apporter askan wi. ak lan la mën a def ci réew mi. loolu dinañ ci ñëw sax sujet boobu dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw waaw dégg nga wax ji bu baax. léegi su ko defee man bi ma ciy dugg. gis naa coono yi nit ñi nekkee. Mm-hmm. ak jafe-jafe yi te xam naa li leen ko teg. xam nga xam naa ko parce que xamuloo tax ñun problème mu àdduna bi suñu bopp yi lay dajee. ah ku ne ngeen di gis. lay la problème mu àdduna bi laa la wax de. Mm-hmm. ñii ku bëgg a tukki ku bëgg a toog ku jub ku dëng ku feebar ku wër ñëpp ci suñu bopp yi lay daje. Hmm. da de di xam kon àdduna bi waaw parce que yow yenn saa yi nga luubal jàmbur daw ñëw ci sëriñ bi. ñu nu may def ba mucc. mucc yenn saa yi nga bëgg a ci kaw. ne du may def. nan laay def yenn saa yi bëgg siiw ci ñun lañ jëm sama sëy daa am ci ñun la jëm damaa feebar ci ñun lañ jëm ñoo tax ñun problème mu àdduna bi suñu bopp yi la daje te ci audit la ñuy dox. ñun ñoo roy commandant de la gendarmerie. Hmm? saa yoo xëyee ci audit ngay dox. teg mu teg seize muy wax ngay déglu muy wax ngay déglu soo paree apporter solution bu laajee nga conseiller ko nga conseiller ko man damay jël nit audience. rien ko pour conseiller ko comme chef de quartier. Ah problème day am ci kër ma jox leen audience ñu ñëw sama kër ñu toog ma réglé leen ba ñu joxante loxo mu bàyyi leen ñibbi. d'accord d'accord. léegi li nga commencé wax ci politique di jubbanti ak a jooyante ak di joxe sa xalaat. Mhm. lan la la apporteel ndax am nga ci ay rencontre ak ay nit yu nguur walla mosoo cee jaxasoo ay nit ci wàllu politique wa pas ñaan mais ci ci ci ci politique est-ce que yaa ngi ciy am ay kii. waaw dinañuy déggante nag di waxtaan ndax yan saa yi ma waxal lu leen amal importance ndax man faruma fenn. yow man ah yow ñu ne patriote nga ci gaa yi. patriote laa xam lu tax ma nekk patriote. waaw gis ci ñoom dëgg. bis bu ma demoon ba gisatuma woon ci ñoom dëgg di nga jàpp ne ku du sëñ xaadim mi ma xamoon hmm. waaw man askan wi moo ma yitteel nañu am jàmm te loolu la ñu Pastef wan ku mel ni président Ousmane Sonko daf ñoo woon ne askan wee ma ñor président Diomaye daf ñoo askan wee ma ñor loolu moo ma bàyyi ci seen biir su ma demoon ba gis ne tey lañ ma waxoon gisatuma ko ci ñoom maay njëkk a génn sànni xeer maay raw Baye Assane nii hmm. waaw maay njëkk a génn sànni xeer parce man fu ma nekk dëgg moo ma fa bàyyi <laughs> kon saa yi sànnikatu xeer bu mag. sànnikatu xeer àdduna gépp xam nañ day sànni xeer moom mooy fekk mooy fekk lu ñu ah, ñu raxas ba mu set. mu jël suuf suy ko ca takkal ko ci ñu ne yooyu Baye Assane def na nangam Baye Assane def na mu taxaw leen bu leen dóor gars yi nekk lu tax mu ne suuf si boo déggee ma suy ko ci. <laughs> maa bëgg buñ koy raxas maa bëgg buñ koy raxas <laughs> parce que waa bi mu ko raxasee waru koon madaar omo la ci woon ah. def te madaar bi bu ko ci defee boo fompee yëf yi day weex asana nitu daara yi jàpp nañ la de maanaam dina ko argumenté ba nga xam ne yow <laughs> ba nga di ah. pat suuf si mënu ci war a ñàkk ba pare Baye Assane dafa am beneen geneen caay-caay gu nekk ci Baye Assane Baye Assane ay jàpp kilifa gu ñëw ne neññel ca kaw mu rabaissé la rabaissé rabaissé ba yow booy ñibbi da nga yaakaar ne sax dañ laa sotti ndox mu sedd xam naa ne xam naa fi mooy mujjee <laughs> <laughs> nee na nga bàyyi nee na baax na nee baax na anataan naa ko léegi kon lii rek ab jéego bu njëkk la ci moom jéego bu njëkk la dugal na ma ko léegi dugal naa deuxième ko waaw kon fayu nga waaw fayu naa <laughs> waaw kon nga ay nit ci wax ji ngay wax sa xalaat waaw wax ni nga ko yëgee en tant que citoyen waaw rencontré waaye ci ay poste déedéet déedéet séentuwuma ci lu ma ci am parce que nee naa la waaw wax nga ko luñ ma ci mën a jox amul lu ma amul man lenn lu ma politicien wala tey président mën a jox loo xam ne fekk ko ci man amul xaalis pour faj soxla la yàlla ak ma ciy dimbali bu dee soxna am naa ko bu dee wër am naa ko bu dee woto yor naa ko bu dee kër am naa ko moom kon lan la ma et bu dem jàng xam-xam mhm. maa ngi ciy sant yàlla ba fii maa ngi jàng lan la ma état mën a defal tey jii lu ma amul ba tax may topp ci kaw état di ñàkkal sama bopp fayda d'accord ba cër bi sama borom def ci man ak fi ma jaar ba egsi fii ak li ma ko li ma may li ma doon tey mhm. xam naa ko lay tax tey jii martaba boobu sëriñ bi def ci man ma ma ma may jaxasoo koo xam ne mën na koo dindi ah, amul mais objectif bi ne ci sama xol bi mhm. yàlla suñu boroom xam na ko sëriñ tubaa mi nga xam ne ci moom laa jaare lii ba am ko ci digganteem ak boroomam ah. moom xam na ko moo tax saay su ci nekk su ma ci waxee dinañ ma déglu macha allah su ma ci jëfee dina ma ci fay bu dee amoo relance bi nga dugg kon ci assemblée ah, foofu kay baax na nooy na <laughs> bañ mu delluwaat fam ne woon ay ci kon national bi day ay Sénégal ñoo leen faloon. waa cinq ans mandat cinq ans. ñu war a doxal cinq ans yu mat président Bassirou ñu fal ko cinq ans mu ñëw ne sama cinq ans dinaa ko seere mais ñi moom seen cinq ans fi lay yem daa di koy dagg xaar daal di koy tas noo gisee loolu yi. ah kuy tooñ noonu lañ lay def rek. bu ñu normaloon ba bàyyi tooñ. Hmm. loolu mën na cee ñàkk. maanaam di dox ci dëgg. dañoo tooñ gisoo tooñkat ni ñu koy def. yenn saa yi yow dooy ñëw fii ñu ñëw fii nga tooñ ko ngeen am. ngeen ni kii ak bi ñu tas. mais Assane ah. boo ko laajee doo ko bàyyi mu tontu. déet mais dañoo day tooñkat yi laa lay wax. <laughs> waa du ñuy tooñ dooy dégg nit taxaw fa mel ni ku nekk ci ci ci buntu këram gu mu jënd ba pare comme ku ne ci biir marché di wax lu ko neex. di def lu ko neex. beneen pexe amutoon. ñoom maanaam dañ lay yóbbu assemblée. Mhm. yow da ngay fàtte la la fa dugal. Mhm. te xamuñu ne assemblée làmmiñu askan wi la. Mhm. pencum ndaw réew mi pencum ndaw réew mi ki fay dem. war da yóbbaale intérêt personnel. war da yóbbaale visionnage. war da yóbbaale richesse. Ah dafa yóbba déedéet waru koo yóbbu ci benn. li ko war a itteel. mooy na doon nit koo xam ne ki feebar goxam ki am jafe-jafe courant ki am problème mu yoon ki am problème mu lekk na yóbbaale problème yooyu toogaale ko mm. su demee présenté ko mm. dégg naa la ki nga xam ne tey maanaam kane ca kaw daf ko bëgg a jàpp noggatu kinde ci suuf moom ci diggante bi la war a nekk balaa ñoo jaar ci kaw askan wi ci ñoom la seen kaw la war a jaar ba pare mm. waaye ñoom bu ñu demee ba ñoom ki war a jaar ci kaw askan wi ci ñoom lay jaar doog a jëm ci askan wi di leen noote mm-hmm. kon assemblée boobu amatul njariñ loolu moo ni tas gi di mm. ah waaw yu am ci biir réew mi yoo xam ne ren jii assemblée la jaaree mm-hmm. parce que ay luwaa yu ñu fa teg la ñoom ñoo ko voté si bu ñu lànkoon ne duñ ko voté est-ce que dina am. waaw dëgg la ñoom dafa am na ñu ni sax man euh, député diw laa lu ñëw ma voté. jeex moom du segg du xalaat député nag. député. man hmm. nga nekk député parti sàngam. waaye na nekk parti bi dëgg. Hmm. waaye parti boo xamante ne nii bu jógoon tey ji soxla ci askan wi loo xam ne askan wi yëpp a bokk loo bañ. est-ce que xam nga ne assemblée nationale bu Sénégal gépp booloo woon bañ ne nangam lii bëgguñu mu am fi. maanaam majorité euh, député ya fa nekk voté ne dañoo bëgg mu am la ñu wax ñoom la ñuy wax waaye dootuñu déglu population bi. dëgg la. est-ce que xam nga loolu. si dëgg loolu loolu la ñuy wax force de frappe. Mm-hmm. ki xàcc ci korpeñ dóor la ko. Mm-hmm. maanaam du ñu wax ne kurpeñ bi daal na waaye dañu naan diw moo dóor diw mu daanu. Mm. pourtant loxo la ko dóor. waaw assemblée nationale kuwam ci askan wi mooy assemblée. Mm-hmm. loxo askan wi la. la maanaam kon fu muy dal. Mm-hmm. war na koo xoolaat bu baax ndax bu ko bu fa dalee dañu askan wee ko wax wala ñoo ko def dañ koy appliquer. Mm-hmm. directement kon kooku dafa war a nekk nit koo xamante ni ku am dignité la war a doon. Mm-hmm. ku am personnalité député. dafa war a am dignité am personnalité waaye da ngi député boo xam ne day wàcc assemblée nationale bi mel ni koo xamante ni ku nekk grand théâtre di show ñu lay sinap di la wane ku ne di jaay sa morom pànk maa la ëpp fit li laay wax la leen fa taxoon a dem dootuñu ko wax. mais leneen lañ fay yóbbu. loo xamante ne seen mbiri bopp la mooy bopp sa bopp. Mm-hmm. intérêt personnel fàtte intérêt comme bi léegi nag bu ñu ko tasee nii. Mm-hmm. askan wi ci jëmmi boppam. Mm-hmm. balaa ñooy voté ab député assemblée nationale. nañu leen wax lan mooy assemblée nationale présenté leen fiche yi ngeen xool député bi lan la war a doon ak kan moo ko war a mérito ñu yóbbu ko fa parce que fii. waruñu koo jàppe comme marché boo xam ne mhm. dañu fay andi n'importe kii muy jaay banditisme wala muy jaay aw fit mhm. wala muy jaay maanaam dañaral wala leneen déedéet nañ fa yóbbu koo xam ne ku am dignité ku am personnalité mhm. boroom xol bu rafet koo xam ne askan wi rekk ko ñor waaye du xaalis buñ koy jox kooku moo war a nekkub député. nga xam ne boo xaree xol ba fekk ca patriotisme. fekk ca patriotisme boo xam ne maanaam da ngay xam ne kii askan wi tey bu ñu jooyee mu jooy bu romb na xam nga xam nga lan moo tax maanaam tubaab yi raw ñu côté boobu. waaw maanaam ñoom population bi daf leen a gënal ñi ne ci nguur gi. Mhm. waaye yow mi nekk député. Mhm. ki ne ci nguur gi bu la gënalee population bi doo wax dëgg. dëgg la doo jëf dëgg. si parce que yow sa intérêt bële. Mm. li lii ñëw ci yow fële lay jóge mhm. waaye li la bàyyi fi nga nekk fii la jóge kon nit ki li ko bàyyi fi mu ne moom la war a gën a fonk liy jóge fële di ñëw ci moom. parce que liy jóge fee di ñëw ci yow. li li nga jële fii ba nekk fi nga nekk tey moom moo la ko may dëgg la ku toog fii ci ban yii di wax la la ko may mooy askan wi ñoo la fi indi dëgg la kon li tax ñu indi la fi mm. bu ko fàtte macha allah yow sa liggéey bii bés boo ko sàggane woon fàtte li la fi indi mm. tax laa jógee Touba ba fii wallaay dëgg la bu yàggee fii tëj waaw lu leer dëgg la dëgg la moom loolu moom lu wér la ah macha allah loolu moom lu wér ñoom nag dañoo dem ba fàttali leen indi assemblée nationale et mu mel ni sax bi ngay wax la sama xel dem ci ndaw soosu nga xam ne bu masaani ñëw ñu baal ma ci wax ñi aw gannaaw gu rëy lay wane waaw sol lu dang kit bu ko defee moom la ñuy yendoo wërale ci réseaux sociaux yi naan xool leen ndaw si lam sol waaw bu bu ca génnee nag def interview naan naan ki ma filmé lii mere naa ko trop sama gannaaw gii muy wane. moo ko moo ba Baasan nag noonu noonu noonu Baasan nag moom rek la <laughs> woon si dégg naa da ngaa abonné ci paasam da ngaa abonné ci paasam yow da ngaa abonné ci paasam. <laughs> parce que ndaw si da koo jël ñaaroon yoo xam ne saa yu génnee moom la ñu yendoo waxtaanee. noonu la mel te buy dem di daagu. buy dem tay baas lay sol. waaw tay baas daagu mu leer na am na lu mu pare classe ak Baasan gi yëpp <laughs> lu mu wax nu ne waaw. xam nga ni kooku lu mu wax ci xel mi yóbbu ko fa déedéet charme moo ko fa yóbbu. kooku maanaam loolu kaay max la nag assemblée bu ñu xëyoon la fa jaar yëpp ci biir deux ans yi ñu mën koo net li wax ko. Hmm. kon dëkk bi tàkk. Hmm. Ah. Ah. yooyu noonu noonu gars yi defuñu ko ci falaa falaa de. Hmm. xam ne baasa ni boo ko faloon député. mu dem toog ci table yi ndaw si romb ko def noonu. buy génn oto baasa nay jiitu. loolu dara mën naa ko déposé waaye sama moromu député la. waaw dégg nga député ab oto nga naan mën de si dara loolu am na di. nga bàyyi sa oto ñu yóbbu ci assemblée jox la oto jox la essence waaw xam nga day dem dép ni mu ko waxee la koy def day dem déposé ko est dina ko déposé rek ñibbi mën na faa dem dinaan ataaya parce leen li moom ak jaayu lay nuru di wane sa forme moom ci assemblée waaw soxla wu wane sa forme ah, dét mais yow sëñ xaalis lim lim léegi ni nit noonu la war a mel yow nga ni noonu la député war a mel te moom mu lim fi koo xam ne da am xam-xam réew mooy député yi ñuy tànn dañuy tànn ñoo xam ñii pour ruube la ñii pour jaay taar la ñii pour nangam ñii pour nangam loolooy député. non mooy mooy député ya woon. ah luñ si xam ne yeneen daamaat yi fi jógee dañuy wax kay. <laughs> koy dégg. waaw. <laughs> moom ne Dakar ga mu ne ngooñ ma. waaw mu ne ngooñ ma. continue waxtaan d'accord kon mu mel ni pour dëgg la li nga doon wax moo taxoon ma indil la façon député yu ñu am ñun. Mhm. maanaam pour dëgg dëggalal li nga wax ni ñun ñii nga wax ni ñun bu ñu ko amee. Mhm. kon léegi bu mhm. député bi toogatee du wax ne léegi député diw laa. dem nga naan député askan wi askan wi laa. ndax dañuy pencum ndaw réew mi. maanaam bu ñu nee pencu ndaw réew mi muy assemblée nationale. Mhm. ka kafay dem. kañ fa war a yóbbu. askan wi nañu ko xool bu baax ba muy koo xam ne seen problème mooy problème am. Mhm. seen jàmm ñoom askan wi mooy jàmmam. waaye bu ñu xoolati koo xam ne boroomu tur la wala ñu jàpp na yor na. wala nangam wala it koo xam ne tey ku mel ni sëñ xaadim làmmiñam jote na ci autorité yi rek ñu ne kon war nañ ko faa mën a teg te fekk na amul capacité sax jiite ab rajo ñu jël ko yóbbu ko foofu mais nag yéen doomu daara yi am ngeen ci rol lu tax du ngeen dem assemblée bu ngeen paree def li alquran di wax faysa xotiyat salaat fantasiro fil ard bu ngeen paree assemblée dellu ci seeni sajaada ku mel ni yow mii lu tax doo doo dem assemblée assemblée nationale man mën naa fa waaw xaadim par personnel da ngeen faa war a dem man mën naa fa dem waaw keneen mën na fa dem mhm. ku mel ni Cheikh Bara mën na fa dem mhm. keneen ak keneen mën xam nga lu tax mën nañ fa dem mhm. assemblée nationale li fa njëkk a war a nekk mooy présenter problème mu réew mi problème mu réew mi si moom lañ fa war a njëkk a présenter kan moo ñu gën a xam problème mu réew mi ci kenn kenn doomi daara yu sëriñ yi mm. ku ñu gën a xam problème mu réew mi amul amul ñoo jaxasoog ñi yor ñoo jaxasoog ñi yorul ñoo jaxasoog ñi wér mm. ñoo jaxasoog ñi wérul ñoo jaxasoog dof yi ñoo jaxasoog nit ñi ñoo jaxasoog ñu jub ñoo jaxasoog ñu jubul dëgg la te ñii doo nga nekk ci biir askan wi wallaay wallaay kon kan moo ñu gën a xam dëkk bi tey jii réew mi tey it boo déggee ñu ne diw sëriñ la lan ca jublu mooy wutkati solution la hmm. problème bu ñëw ñun am nañ ci solution yéen waaw waaw waaw moo xam waxtaan ak moom delloo si ko delloo si ko waaw moo xam jox ko lu ko faj ko faj hmm. moo xam it nag da ngay dem wutali ko balaa long hmm. Ah, indi am solution bu laajee nga yéeg ca kaw bu laajee nga diisoo moo tax ku ne lañ jaxasool macha allah comme ñooñu kan moo leen gën a tey mérité woo taxaw mhm. tey taxaw askan wi leen nangam ak nangam imagine ku mel ni sëñ xaadim tey tagguma sama bopp mhm. man lii ma yàlla dimbalee ma ciy foraatu as mhm. askan wi ma bokk ma koy bokk ak ñoom ba pare di leen kaasal ba heure bi ndax kooku lu ma amee assemblée nationale yóbbu na ko fa. déedéet tey boo doon tey yi damay dem député di ku mel la sant déedéet déedéet Sëñ Tuubaa la. dëgg dem assemblée taxul mu perte dignité am. déedéet. taxul mu per per personne tey lañ ko gën a naw tey lañ ko gën a naw tey la ko mm. tey ji si Muntaxa gën a naw tey la ko gën a téye ndax lan l'islam dafa teewal te assemblée nationale diine islam dafa war am ñu ko fa taxawal ñoo xam ne ñu fa mat sëkk lañ mm. bés bu ñu ko fa amee problème yii di am nii yëpp dootul am mm. te dafa indi dafa dindi sa décomplexé bi am ci ñun jàppoon ne boo mënta làkk français bi jëpp waroo taxaw foofu te te loolu taxawut dëgg la loolu la ñu naxee rek. jàngi tubaab ñëw xoyom xoyom doon ko si mu ñëw. appartement yi ñu fi loué cinq cent mille. Mhm. ak quatre cent mille ak trois cent cinquante mille. Mhm. borom salaire ñi moo ko laal. waa dëgg la waa mooy administration yi. ñi moo ko laal kooku ci loué rek am sàcc nga de. jeex pourtant boo ko joxoon tey ji doomu daara yi ñu loué ko. waaw dëgg la walaay dëgg la. ah parce que li dañoo liñ liñ ñaan jàmbaari fàkk tëdd. waaw ñun ñoo leen di fekk ñoom ñuy def CM2 ñuy jàng alxuraan ñoo def CICP c fekk leen ca CM2 roublé leen jàll dëgg la. léegi bu paree kosu ca kaw nag. bu kosu ca kaw te doomu daaraa ngi noonu waaye loo jàpp ne mënu ko bu ca fanaanee bu setee mu def ko. macha allah. alxuraan mel noonu. ak saa <laughs> kon mi ngi noonu sëñ Xaadim ci sujet boobu nga xam ne dugg nañ ci Assane ci noonu nag kon la ñuy duggee ba ñoo ñëw ci. Euh, euh, dëkk boobu nga xam ne mooy ndol-ndol ak yéen ci bëgg a wax yépp dafay laal sax waaw dafay laal sax moom li mu doon wax léegi ci kii kaasal nit ki ci ensemble lan la dooree di leen ci ñëw incha allah. naa seen dëkk ba moom saa yi amuñu courant amuñu ndox. amuñu waaw loolu dinañ ci ñëw. amuñu dara dama ko dégg rek. waaw daa mu nekk fa nag te mënu leen a kaasal. waaw dinañ waaye ma nga jëm waaw d'accord nañ ci ñëw. <laughs> am na ay ay ay affaire léegi ñi nga xam ne ñu ngi yuuxu gouvernement bi te amaguñu juróom benn weer ci la ñuy dugg ñoom buggaan ak ku mel ni sa waaja wala suñu waaji sax loolu kay <laughs> euh, sa normal ñoom waay la de sa waay la de bu ndaw da sa koy dee Assane xaaral nag Assane doo ko wuy ma waay lañ lii la saa njóogu lii la saa njóogu nag naan di laaj nit ba pare di ko manipuler ci laaj bi yow laaj ko rek waaye loolu du <laughs> yow doo laaj rek suñu xaarim <laughs> ah. waaw comme ni ñu ko waxee gouvernement bi ñu leen fare léegi ñu ngi doxal am na loo xam ne ña ca mais ñi nga xam ne ñooy opposition bi kat ñoom it ñi ngi si wetu askan wi fi nga xamante ni seen baat baatu askan wi àggu fa comme yow ni ngay def ñoom ñi ngi fi di wane yi nga xamante ni ñi ngi fi ay faay la yu si gouvernement bi war a def te defuñu ko muy bi nga xamante ni ñi ngi fi taxaw taxaw comme taxawaayu askan wi di leeral am na ñu leen di jéem a sànni ay xeer ak yooyu est ce que war nañu ñun askan wi am ku ñu taxawu di ñu jottali suñu loxo am ñeneen ñu nekk si ñun di sànni ñooñu xeer waaw yow dégg nga laaj ban opposition la ban opposition la. dama ne opposition bi ñun ñun ñi nga xam ne bokkuñ ci gouvernement bi laa wax. waaw bu ñu amee lu ñu metti waa am na ñu ñëw taxaw si suñu wet. waaw daal yéen gouvernement bi de li ngeen waxoon ak askan wi defu leen ko maanaam kaasal ñu am nañu waaw mais ñun si suñu biir la am kenn ku jégawaat naan eh yéen bu leen ñu kaasal li ngeen ñu kaasal du noonu est-ce que loolu war na. déedéet xam nga tey damay wax ne. léegi ni mu la laajee laaj fexe na ba réeral la ci laaj bi tuuti yi fi nga war a jaar sax la jëkk a réeral <laughs> li saa jóg daal Assane boo ko joxee laaj daf koy jaxasewaat ba doo xam laaj bi nga laajoon. fi mu ni mu la laajee. moom laaj bi li mu ci. loolu tax nga ne ko yow ban opposition ngay wax. waaw <laughs> parce que ban opposition parce que day denc maanaam maanaam li mu làq ci suuf. a génne dégg nga xam nga xam nga gouvernement boo xam ne defu fi six mois. waaw ah? mhm. est-ce que mën maanaam opposition bi ci tane sax mooy bi musta nekk ci nguur. Mhm. waaye ki mës a nekk ci nguur nekk fa presque douze ans. Ah. kooku war naa xam. di kaas lu amagut. Hmm. lu nit war a def ci six mois te yow douze ans defoo ko. te yow ki ngay kaas ne moom da koo war a def yow nekkoon nga fa te defoo ko. Hmm. fukki at ak ñaar moom mu defi juróom-benn weer nga ne da koo war a def. wax nga dëgg est-ce que loolu xel nangu na ko. dégg naa dëgg. def nga fa fukki at ak ñaar. def nga fa fukki at ak ñaar. li ngay kaas yow defoo ko benn weer. kii def fi juróom benn ngeer weer nga ne def ko fee war a def yow lan moo tax 12 ans yi nga fa nekkoon yëpp defoo ko fa. Mhm. nga wëlbati ko ne moom def ko fee war a def. Mhm. yow buñ la mhm. dénkee. liñ la dénk la taxoon ñu dénk la defoo ko. defoo ko defoo bu ñu xëy nangu ko say loxo dénk ko keneen fi ñu ko tegee ci loxoom ak fi mu koy nangoo nga ne daa war a def nangam te yow ñu jox la ko. vraiment ñaata waxtu nga téye ko te yow mënoo ko caa def même bu ñu ko delloowaatee ci loxo da nga koy del na defoon da nga defaat. kon ñooñu taxuñ ñoo wax. ki taxaw nag ne day kaasal askan wi. yor ay milliards. te askan wi mënu cee lekk fukki dërëm. waaw ndax lu muy def ci milliards yooyu. dafay gisaat ab revenu boo xam ne war naa jóge ci askan wi delluwaat ci biir poosam. kooku bu waxee askan wi ne yéen yéen laa fi nekkal mu ngi wax lu ko neex. di takk ay dégg nga fi may waxee. xam ko di takk ay di takk ay montru kër. non non waaw waxtu takkee montru bi ma montru kër. ah waxtu wi ngay taggee sa bopp waxtu wi ngay waree ay xaamaak oto yu cher di toppalante ji daw yaa ngi rom buntu kër yoo xam ne ña fa nekk ndékkiwuñu añuñu reeruñu am na ci ñoo xam ne amuñu lu ñu fayalu yaas ña ca des boo demoon ca hôpital ba tey nga gis ñoo xam ne mun ñoo jënd ordonnance nga def convoi nga def convoi oto yi boo leen dajale lépp ëpp na deux cent wala trois cent millions yow nga ne yow askan wi moo la tax di wax moo la tax a jóg te benn plein wu benn oto foo mën a taxaw ne fii maa fi def courant bi wala maa fi def ndox wala maa fi def lii tey ji amut photo la yuuxu état yow kooku xanaa yow dof mooy taxaw yow di yëkkati dara di la jox. Hmm. askan wi bu ñu yeewu woon rek ki war a ki ñu war a ki ñu maanaam ki war a ne ci seen wet dañ koy xam gis nga ki yoru dara. Hmm. te yor aw làmmiñam hmm. yorub xam-xamam askan wi bu leen mënee jiite xam nañu bu leen mënta jiite xamuñu. xam na ki yorub xaalisam. lu yàgg te faluñu ko dara. nekk ci kanamu askan wi di ko di dund ak ñoom te yor loolu mu yor su leen mënee. jiite xam nañ bu leen mën da jiite xam nañ. Mhm. gis naa fi waaju ne pocet fan yi waaw daw dem Mazalik. waaw def fa ay solaire gaa yi yuuxoo classe ak Baye Assane Guinée woo woo. waaw Assane waaw bàyyi ko waaw ah. léegi wuy ma ku nekk ak ni ngay communiqué bàyyi ko noonu rek mu communiqué waaw bàyyi ko mu àggale waaw waaw njiitul Dakar moo def massa def ko loo xam murid yëpp ngi jooy waaw xam nga waaw Assane moom mii jooy na si kon xolam sedd na si waaw waaye da bàyyi ba da war a rafet lu maam ni mu ko war a bàyyi ko ñëw ba pare man man man Assane courant Assane eh. gis nga maanaam tey bu ñu xooloon tax yaa ngi ko dindi sax ci lancé bi nekkoon. bu ñu xooloon bu ñu xooloon tey lii dafa may ruube waaw ne lancé bi nga neex la. maanaam bu ñu xooloon lii tey. na rafet na ci miiru jumaa ji. waaw son yi bu dem jël ko donte kon 1000 francs lay jar. mu dem mm-hmm. taf ko ci miiru jumaa yi Masalik bi. Mm-hmm. ngir Sëñ Tuubaa mm-hmm. neex na ma. waaw dégg nga wax ji bu baax. kontaan naa ci bu baax. waaye son yi bu bu ca laxasee àdduna loola dootuma saf dara. waaw. man sama yëpp laay waxal de. man léegi man lay wax léegi bàyyi ko maa ngi koy dégg voilà yaa ngi dégg. <laughs> Eh, jumaa ju ay milliards tabax. waaw ay solaire jaaxalu leen. wallaay la te te te wax nga lu am solo. te jumaa ju ay milliards tabax ay solaire jaaxalu leen. mais est-ce que nañ ko wala amoon. dégg nga mm-hmm. wax dëgg baax est-ce que xalaatoon am nañ idée bi. waa dig loolu da nga koy bàyyi léegi léegi bàyyi ko mu ci raisonnement bu paree après bu paree waa léegi yow doo bàyyi yow lan yow lan mooy sa problème léegi yow lan mooy kontaan ci kontaan na ci kay ah, dégg ko li mu lax ko ci njëlbeen gi kontaan naa ci waaye bu laxasee àdduna mu mer ci waaye daa war a rafetlu rek ñaanal waa ji waaw mais mais lii Assane émission day jàngat mais day jàngat xalaatam lay wax loolu amul jàngat rafetlu la <laughs> rafetlu yaa ngi dégg man sama bi yow laay waxal kii waxuma moom <laughs> yaa ngi dégg. waaw dégg nga. waaw léegi. jumaa ju ay milliards def asan <laughs> dégg nga. jumaa ju ay milliards def. <laughs> jumaa ju ay milliards def mais dinaa waaw jumaa ju ma yow teel ma moom lu muy wax bu ko déglu. waaw jumaa ju ay milliards def. Mhm. ay solaire jaaxalu leen. dëgg la te mbirum Sëriñ Tuubaa sooy def ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa képp tax dong. Mhm. pour man jarul yenn yi. Mhm. mais bu laxasee àdduna rek man su ma ca waroon a bëgg rek dèjà rocceeku naa ca bu yàgg. dëgg la parce que Sëñ daray àdduna. bu bëggoon àdduna képp. da ngay àdduna rek a ko tax kon tey waxatuma la leen. waaye ba élection yi des deux mois. deux mois ba pare boo seetee acte bi fi mu amee. Mhm. ak fi ñu génnee. waxi Omar Diagne ji mu waxoon le 26 septembre 2018. Mhm. ba mu ànd coow li ci biir yoonu murit wi. Mhm. benn la. li ruux ci suuf. am na ñu ko gisul. wax nga dëgg de. fi sol problème mu salaire yi déclenché. ak fi problème waxi see Omar Diagne 2018. di génne ak fi murit yi mere. ak fi ñi ci même bërëb la ñuy defee euh, doxu mm-hmm. ñaxtu bi doxu ñaxtu bi. c'est même chose. Mm-hmm. te tamit fàttali ne yow mi koy wax yow mi wax lii. waaw Cheikh Omar bi mu waxee lii da ngaa dugg ci moom ba jeex tàkk. damaa ci moom attaqué ko ba jeex tàkk dal ci kawam. aw ma lu ma ciy reculer. ndax man li may wax rek. sëñ Touba amul lu ma koy jëndee ci kaw suuf. Mm-hmm. amut. ndax biir na ma ne li mu def ci man. wallahi al azim bu ma doon daw ba kowet mhm. du tax ma dabu ko kon kooku mënatuma koo jënde kenn mhm. waaye damaa bëgg mhm. maanaam lu ñuy def ci sëriñ bi na sëriñ bi rek mu nekk yaa sëriñ bi kese waaye monter say solaire woo say influenceur ñu jël la yuuxoo nangam nangam nga fexe ba dugal di gouvernement bi ak nga fexe ba ruubal la nga jël sa émir chroniqueur ñu koy ñu koy ñu koy ruubale ci suuf classe basan gi toll fële ah, di ruube ah, nangam nangam ah. yooyu yooyu yooyu moo mën a ñàkk waaw te ko masalik donc def na ko ci yeneen ko defal mais waaye mais mais li la sëñ Xaadim bëgg a wax mooy li moom solaire yi muy defal sëñ Touba sëñ Touba am na ko <laughs> waaw sëñ Tuubaa amee ko joxe sëñ Tuubaa déet du tax mënti wuñ ko <laughs> waaw mais mën nañ ko xam nga xam nga li ñu ma <laughs> mënti wuñ ko maanaam sëñ Tuubaa am na ko lu tax mënti wuñ ko li tax amee dañ ko mënti sëñ Tuubaa kay nit ñi am na ko ndax par li mu ko jox ni mu ko joxe église bi doo wax rek taxawal ba sànni wax rek waaw léegi nag jeex ah, kon génn foofu kon da di génn foofu waa ji génn leen foofu kon. waaye. suñu xaar ñu génn foofu. <laughs> Ah. waaw mais mooy mooy jàngat bàyyi ko. ma ni mooy jàngat waaye ni mu ko joxe église bi joxe ko yeneen jumaay fuuti taal yi ñëpp rafetlu ko noonu la ko joxe Masalik Masalik bu ko amoon monte ko amu ko. waaye jëwriñ jëkk kontaan na ne nekkul li nga def nii de sëñ Tuubaa. mais Assane la. si Mountakha gërëm na rëy na si ñun. waaw mais asan Assane mais mais Assane lii daa débat contradictoire yow da nga am invité. billaay invité la moom moo tax ma koy dama koy relaxé bu ni war nañu dugg Gabon de. ah Gabon waaw yow ñor na de. Gabon il faut ñu na ma xamul ba xam man mas naa dem Gabon. wala benn yoon bi la ma ci gaal koy jaarale. Hmm? ci gaal yi am gaal guy dem ma war a bëgg. dangay dem de ki yow. Badou Badou ko bëgg a xabtal mu jékki-jékki di jëli xabtal xooj ko maanaam dama ko xam nga xam nga li gars di wax naaw dal. waaw dama koy naaw dal. mu xëy na ni ma jóg ko gis. <laughs> bu émission bi jeexee <laughs> gaal bu njëkk a départ Sénégal di dem di nga dugg basé na nga ca biir la ñuy def te ay caméra lay yebal ñu wan la fi ñu lay génn. di nga dugg de. <laughs> kon bi nga doon say xaarim yaa ngi woon ci sujet boobu kon pour jeexal mhm. maanaam li nga bëgg a wax daal mooy même bu dee lenn luy jar 1000 francs nga koy jël di ko defal sëñ Touba bu ci àdduna dugg bu ci àdduna mënoo dugg waaw yow loolu mooy sa problème mais daal bañoo ko defal sëñ tubaa ak fu mën a jógee fu mën a jógee defalal sëñ tubaa mm-hmm. ndax loo ko defal sa bopp nga ko defal mm-hmm. sëriñ bi am na lépp waaye lu waay di def ci moom gis nga mbirum sëriñ tubaa nañu xam ne mm-hmm. euh, taxawaayam ndawul yàlla la lu mu boole ak askan wi maanaam ni nga mën a defee ci sunu borom dem ca jàkka ja saraxe fa wala nga dem ca jàkka ja def fa courant wala nangam lu ñuy wax néegu yàlla bi ah te pourtant gisuñu yàlla waaw ah, waaye dañ ne boo defee ci néegu yàlla yàlla fay la dëgg la mbirum Serigne Touba noonu la demee man nag boo def na sëriñ bi rek tax dugguma la waaye bu ma déggee néegu yàlla mooy comme ça jumaa yi nekk si jàkka yi nekk si dëkki kaw yi yooyu laay gis sama xel dem si néegu yàlla lu tax loolu mooy yu ndaw yooyu xam ne li mu yi ne ci àll bi rek man yooyu laa gis may jàkka yi néegu yàlla la mais yii moo gisee sama xel bu dem ci néegu gis nga jumaa ma wax la benn biir néegu yàlla bi bi ñu taxawal te yàlla rek tax hmm. ak néegu yàlla bi ñu taxawal ngir gis leen ma mënuñoo yem euh, bari caaxaan fi ne am na noddu paa yi noddukat yi nga xam ne comme ça genre gi bu ñu demee ba jëm mag bu ñu jëmee ba jëm mag am na genre maire yoo xam ne ci koñ bi bu ñu leen bëggee mbaal dañu leen jaay neex baat dañuy dem di xëccoo noddu bi ci jàkka ji man dégg naa benn paa bu ma sa nodd ba pare génn wallaahi azim ah. ma dégg ko mu génn ñu génn ci jumaa ji ñuy ñibbi mu dajeeg benn maire naan ko tey maa nodd maa nekkoon de dégg nga ko mu ne waaw mu ne ko mbaa kontaan nga ci neex na mu ne ko waaw allahu akbar ah, barke xaadim rasul yàlla jege na fa xam na moo tax dañuy xëccoo nodd bi jiitu jiit xëccoo imam bi sëñ xaadim baa xam ne sama koñ fa ma dëkkoon Cerno Njaay waaw ca ginnaaw raay am na ci jàkk soriwul ak euh, kii kër Nabou Leye gii nga xam ne barki de moom la tudd ci mbir yi am na ci jàkk jox ne ba léegi dañ koo tëj presque sept ans ngi nii waaw ci ay xeexante maay jiiteeg maay nodd ba pistolet génn dañ koo tëj ngandamal jumaa xam naa ka xam naa fa xam naa fi ngay wax xam naa fa parce que man Fass Mbaye laa dëkkoon xam naa fa bu baax kon dalay wóor ne loola yàlla taxatul génn na ci waaye am na lu nekk ca biir xëy na peut-être que imam ba am na ca ndaw soo xamante ne ni dem na ci dem na ci sëñ <laughs> sëñ yi bu sëñ son yi bu xoolal ko ne ko yow de bu la imam takkee da ngay tekki ah. mu ñëw wax ko baasan dégg ko euh, sëñ Cheikh dégg ko sëñ Xaadim dégg ko léegi nag fekk sëñ Xaadim may sëñ Xaadim ma doon jiite jumaa ji baasan ne ko jumaa ji day faf am ñaari imaam waaw damay jiite de ndax waaw ndax ndaw si jël ndaw si waaw su ne ndaw si ndaw si ne ko daal tànk doonoo imaam du ma si yëg yow ne nañ ma kilifa rek moo ma mën a yor baasan di xataraayu te su boobaa xam ne baasan mi moom lu ne la koy jaral <laughs> pour jël ndaw maa la wax lii. exemple moom kay foo muy ber jumaa yi boppam ca koñ ba du du bàyyi. <laughs> macha allah waaw. kon mi ngi noonu. waaw sëñ Xaadim la dalal tey bu ko defee ñu daal di waaxu rek Assane ndax eh, war na dellu ci yitte yi te itamit eh, eh, waxtu waa ngay dem. Mm-hmm. léegi nag bala ñoo ñëw ci li nga xam ni mooy yaa ngi tudd. Gabon Gabon gi ñor na la xam naa ni. Mm-hmm. jombul am na loo ci ñaari baat hmm? a laaj léegi ba xam yoon na ma sa dem Gabon ndax man ren ren laa ma sa dégg. da ci dem Gabon yooyu waa Gabon mooy laaj ñaata yoon nga fa mas a dem ndax ren moom Gabon gi lépp xaw ma liggéey ba ñu fa def lu ñu fa mën a def daal mais Gabon gi yëpp daal suñu xaadim moom Gabon gi yëpp dem géeg ñibbi si géeg yëpp suñu xaadim ku taal écran suñu xaadim suñu xaadim léegi yow bu fekkee ni loolu daa nga dem lu tax dem yi wuute bu fekkee ni bii di ñëw it est-ce que doo toog xaar ndax ñu mën a wane liggéey ba ta bañ laa wane yow ndax liggéey bi dara nag. liggéey bi nga wax wala ñoom Mamor Mbaye ak ñi des. ah waaw waaw Mamor wax nga dëgg waaw Mamor am na ñu daan wane waaw. Mamor non dama ne ndax yow ñan ngay wax ne dalay suul daa am ñum demam gi dafa am ñum suul. de demam gi kay yow foo taal suñu xaadim suñu xaadim. waaw kon loo naan liggéey bi moom it mu génn. Ah. ah tontu leen tontu bu saf sap ba pare ni moom du tontu taal bi Sëñ Tuubaa <laughs> ba pare man xam naa ni xaw nañ leen a rey. waaw laaj wala da ngay contribuer. waaw mais da ngay laaj wala. Ah, gamoo ñaari yoon laa fa dem. ah ñaari nga dem. waaw. dem am na ñu ne nag ñi ne benn yoon laa fa dem. Ah, mais man ñaari yoon waaw ñaari yoon laa fa dem. Ah, lu tax bii jur coow. waaw bii tax mu jur coow. man ba may dem dama faa yóbbu sëñ Touba kese. sëñ Touba kese. kese ma taxoon a jóg. gabon bi may dem damaa jug ngir maanaam diingatkat yi. Mm-hmm. ak ñi bëgg a xam. ak ñi xam te mosuñoo gis li ñuy wax ilmul yaqin aynul yaqin ak xaqul yaqin mhm. moom laa matala ji woon sama diggante ak sëñ Touba Gabon ndeysaan sama téléphone képp laa yoroon ànd ak waa ji toog muy sëñ Cheikh ndeysaan moo doon vidéo mhm. ba may dem jubluwuma ci defar ay kele jaay mhm. jaay ko murit yi comme documentaire jubluwuma ci it pour samay vidéo yokku sama chaîne YouTube jubluwuma ci it pour am aw tur ñu may jooloo jooloo jubluwuma ca it pour nit ñi gis ma xam ne kii sëriñ la. dem naa fa ba ñëw waxuma fa ci wàllu ñaan. maanaam damaa bëggoon diingatkat yi ñi bëgg xam ñi bëgg a xam ñi xam ba pare te mosu ñoo gis laa bëggoon a woni leen li ñuy wax ci sëñ tubaa histoire sëñ tubaa mooy lan. sëñ tubaa xam ne man loolu moo ma tax a jóg làmb sama xol bii mu fees ci dell. Mhm. mu ne xaaral ma ànd ak yow. Mm. saa yu ma taxawee di wax nag am na ñu gang bu taxawee na leen di wax. waaye la ëpp ca mbooloo ma day man la ñuy topp te man la ñuy déglu. lu sabab loolu mooy fu dëgg nekk. lu sabab fu dëgg nekk fu sëriñ bi nekk ak fu sëriñ bi nekkul du benn. ah yow dem nekk ci sëñ bi rek. damaa dem nekk ci sëñ Tuubaa rek maa paasal sama bopp ci sama alal. Mhm. fayal sama bopp samay hôtel. Mhm. la may lekk la may naan ci man la jóge te du man dong ay millions laa ci dépensé sëñ rek a taxoon ma def ko. Mhm. yóbbu ma seenu YouTube sama téléphone laa yor. iPhone 15. waaye fu ma taxaw daal wax sëñ Tuubaa dina yëg ne am na lu ma bëgg a xamal murit yi hmm. léegi ñu la attaqué kon attaqué lu tax fu mu jógee waaw xam nga yow maak yow bu fekkoon ne tey dañoo dañu nit dañu dañee compa benn image hmm. image boobu son yi bu def ay pexeet dépensé xaalisam ba jël image bi pare pour def ko ci kele jaay ko pare hmm. pour def ko solution TV pour nit ñi mën ko xool seen YouTube bi mën a génne dara sëñ Xaadim bii di fi fexe def ay millions ba pare dem wan ko gratuitement. Mhm. est-ce que son yëpp dina kontaan. Mhm. déedéet. son yëpp day mel. xool ñaata million nga ñàkk pour. pour am image ah. Mm. waaw da ngay samp ak man ger léegi yow nan nga mën a def pour saltel dégg naa ne maanaam dafa am ko doon dem ngir di dund ci sëñ Touba. dund ci sëñ Touba yow nga dem di dundal sëñ Touba di dundal sëñ Touba waaw kooku da ngay déranger. waaw dama koy déranger léegi nag lan lay bëgg mooy saltel image yi nga xam ne dama koo maye gratuite moom image yi mu war a jël téye ko pour def ko ci ay kele joxe ko dugal ko ci seen YouTube am nit ñi daw wuti ko. Mhm. boo ñëwee mu jaay la boo seetaanee mu jaay la. man nag da man nag da ngay dugg sa TikTok rek di défilé di xool di seetaan sa xol du nekk nag say xaar yor na ay yor na ay moo boo seetaanee mu jaay boo ñëwee mu jaay la. moo tax bàcc yi bi may bàcc du ma yërëm bàcc rek. bàcc rek. <laughs> bëgg nag di seexaat maa ngi doon xam ne yaa tooñ. <laughs> déet yow li nit ki di jaay nga koy maye. <laughs> waaw li ngay jaay ma koy maye sawet kay. te moom daa waroon a wax nag mais sëñ tubaa tax ku wër di doon kaas. ki doon kaas bu doon sëñ tubaa ko di kaas. maanaam na nga def yow ñëwoo. dañ laa woo téléphone ne la kat. diw waa jii sëñ xaadim mi image yi muy wane nangam ak nangam lan bu dee sëñ tubaa tax ngay kaas nan nga war a def. woo sëñ xaadim da ngaa war a woo sëñ xaadim ne ko li ma dégg nu mu demee. Mhm. ñu ne ko nangam ak nangam ak nii la demee. bu fekkee da caa am solution mun la léegi solution bi lii la. dégg nga wala nga ñëw waaye yow kala woo wax la moom rek nga déglu génn wax. ba pare man sëñ Xaadim boo ma bëggee daaneel te li nga may daaneel lu dëgg sëñ Tubaa koy weddi fa sëñ Tubaa di weddee say wax mooy fa nga taxawee ne da ngay sëñ Xaadim day laaj nit ñi xaalis. ba pare nit ñi daw wéri image boobu gis sëñ Xaadim di may nit ñi xaalis di maye ay courant di maye ay ndox di ut ay yoon dégg nga wax bu baax. Mhm. di taxawali hôpital. di taxawal ay école di defar ay boulangerie pour askan wi dinañ ci ñëw sax loolu mhm. kooku boo taxawee léegi laaj nit ñi xaalis mais ginnaaw gi déggante ngeen yéen ñaar bëgguma déggante ak mhm. kenn ki moom ñëw na bu tuubal ma ki nga xam ne moo toll woon fa lay wax ci man mhm. ñëw na ba jéggulu ma ci vidéo laay wax ñëw na ànd ak ay kilifa yoo xam ne ci yoonu murit ñoo ñëw ba fekk ma ma taxaw ci kanamu kee seede la ci man mu jox ma loxo ne ma maa ngi lay tuubal di la jéggulu ci kanamu maam Mor Mbaay jéggulu ma googu ma jéggulu moo dafa tooñ. parce que lim ma wax daf maanaam daf maa diffamé su ma ko porté woon plainte day am problème. parce que dina ma woon wave yi. Mhm. yi ma nit ñi envoyé. Mhm. dina ma woon sama image yi ñu taf dinañ ma wax fi mu ko teg waaye su boobaa damay yokkaat coow ci yoonu murit te loolu taxu mu ne comme Sëñ Tuubaa daal xam na ne moo ma taxu na jóg jox na ma raaya gi ma gàddu ko ba pare yéegaat avion wàcc Sénégal. mel ni ku deful dara. <coughs> te li ci gën a neex mooy lañ doon xëccoo bàyyi leen ak màggal waaw gisoo ma ci benn télévision ma toog fa di wax màggal dem naa Touba laa nekkoon télévision yi émission yi ma daan def bu te bu màggal di jub si sax dama defuma ko ren hmm. parce que su ma ko defoon dañ naan lii la bëgg waaw dëgg la ma rocce ko bàyyi leen ak moom fa ma bëgg liggéey bi yegg ka yegg na fa macha ñu dem ah bii di nga defee ko am na am na loo xam ne bu ma ko déggee ci suuf bu ma wàccaatee foofu karawaas yi dalaat rek bàcc yi <laughs> xam nga ñun dañoo fànk. xam nga waa ji seytaane la. mooy maanaam question piège yi mu la la leeroon ni sax boo demul bu bu ko leen boo demee coow am danaa la demal. mais su ma demul du ma demul xam nga ñoom bu ñu yeewu woon. lu mel nii nga am ko ci sawet maanaam koo xam ne àdduna gépp dañ koy déglu te bu communiqué mu yi bàyyi ko xel macha allah yow li te liggéeyal sëñ Tuubaa rekk tax a jóg <laughs> woo ko ba mu ñëw nga ne ko kaa ñu def nii na siiw xanaa xam ne gisee bu ñu daawoon rangé wu ci sama kaw. Mhm. ndax dugal ci seen biir. Mhm. ma ànd ak ñoom. Mhm. day gën a am doole. ak tool day gën a riir la <laughs> waaye sañ Tuubaa mi ma taxoon na jóg. ñoom ñooy doon kaas taxoon. macha allah <laughs> xam naa li ko ci Assane Borosé la sinon bu ñu ko teeloon yëg dañuy jël image yi dugalaale ko ci waaye nag incha allah yoon yemul ci benn. léegi nag sëñ Fallou Goumbala bala ñoo ñëw ci point bi mujj bi. di leen ñëw sax ci mbëkk mi. waaye image bi di ay soxna yoo xam ni sëñ Fallou daf ma koy wan muy image bu

indi benn léegi sëñ Fall jox ma beneen bi am na beneen bu ñu solee lu mel ni genre ay hôtesse. dana am audience bu mu am ak waa safara. ah bon waaw. maanaam yéen ña fay def ndax man safara moom dama koy dégg rek ala kulli yàlla. léegi Fallou illustré ñu euh, demal Fallou na la illustré image bi léegi Fallou wan ko image nga bàyyi Assane mu dem mu laaj. lii nag euh, yaa ngi yor sa ñetti soxna. ñoom ñëpp ñu àndandoo nekk benn. maanaam yàlla na mat ñeent. Ah, amiin waaw yàlla na ma nekk maam maam yéen daal maam ni ma gisee nii organisé wu organisé wu leen lépp benn la. Eh. lépp benn gi mooy continuer ba kii wala am na ay kii. <laughs> waaw luy lépp benn la. waaw Fall mën nga bii waaw luy lépp benn maam ndax organisé wu nañ wala lii lépp benn lañ maanaam moom daal moo leen moom ñoom ñëpp benn lañ lépp benn la daal. wala am na ay. am na ko ne man maanaam. Hmm? lii kii la nii rek. ñii ñoo bokk benn ko taqaloo benn néeg yenn néeg. Hmm. kenn ki day fanaan néeg kenn ki sax. yenn saa yi keneen ki fanaan néeg keneen ki. ah lay laaj. waaw laaj mooy affaire amul organisation daal. moom daal moom moom gi nag bu ko neex rat naan. waaw <laughs> ah, rek ba xam. <laughs> bu leerul lépp ba <laughs> maanaam ñii daal amul nii yee. ñii maanaam samay soxla boo seetee sax màggante wuñ. ma màggante wuñ ah gi ñoo bariwul màggante gi bariwul. Hmm. ay xale lañ ah. kenn si ñoom amagul 30 ans. Hmm. ñoom ñii ah. ba ci aaw bi ba bi kenn amagu si 30 ans. Hmm. allah kon yàlla dafa ma boole ak ñoom. may ànd ak ñoom ci dëgg bañ a mel ni Baye Assane. <laughs> yaa dugg ci affaire de <laughs> dëgg gi mooy. maa leen takk. maa def ci ñoom alal. Fallou génneel ko fenêtre. maa tabax sama kër. Mhm. dégg nga. Mhm. maa joxe dépense muy reer ak ndékkeeg añ bi. Mhm. maay fay courant maay fay ndox maay sar say gaz. maa moom sama kër lii laa fi bëgg. jàmm la ju toll noonu moom am naa ko. mooy jàmm. moom laa bëgg sama kër avant tout d'abord. beneen bi ci topp mooy. Euh, démocratie am na fa. Hmm. mais tamit dictature am na sama biir kër. am na fa waaw. ñaar yëpp. waaw ñaar yëpp fa am. te démocratie bi mooy. démocratie bi jàmm jee ko indi bu jàmm amee démocratie am bu jàmm amul dictature mën naa mën naa ñëw. dictature à tout moment mën naa soppiku. Hmm. dictature noo koy doxalee. dictature lii laa bëgg sama kër moo fi am. Hmm. am naa fu la jotul kenn mënu koo changé. ko def doo aaye. mën mën naa ñàkk aaye sama kër xam nga jigéen xanaa xamoo ne jigéen. li ko yor moo yor xale bu ndaw ci kër hmm. jigéen li ko yor moo yor xale ci kër xale boo ko puniree mu xat jigéen boo ko punee mu xat jigéen dafa bëgg maanaam affection ci borom këram hmm. hmm. ñii ñoo jàpp ne maanaam sëy bu metti ne ca lal ba nangam nangam yooyu moo yor jigéen déedéet jigéen affection moo ko yor maanaam yëg ko ba pare it bu ñu doonoon fukk ci kër gi doo dégg coow. Hmm. fekk yaa ngi garder sa làmmiñ wi toog ak kenn ki di wax ci kenn ki. Hmm. problème du am. mais jigéen bu ñaawee njortu mer. Hmm. te jigéen a gi noonu mais boo toogee moom wax ci kenn ki su génnee même bu ko ko waxul dina ko dina ko doxee. te ñoom benn xel lañ yor jigéen ñëpp a bokkum xel. lu kenn ki def keneen ki xam na ko. fi ne même boo fanaanoo kenn ki. dund ak moom loo xam ne dundoo ko keneen ki bu ñu yeew bu ndey ci couloir bi bu ko xoolee dina ko xam ci moom hmm. loolu yàlla defal na leen ko de ce fait nag pour ñu juboo boo leen séparé rek ayam parce que ñaaw njort day dugg maanaam ay soxna boo leen séparé wee boo leen séparé uh-huh. pour ñu juboo du yomb maanaam dëkkal kii fee dëkkal kii kii fële dëkkal kii fële hmm. du ñu gaaw a juboo parce que saa hmm. yoo kenn ki ginnaaw di dem xamul lan ngay jënd ci yoon wi xamul lan ngay yóbbu xam nga lan fan ndax lan fay nekkee mais bu fekkee ñoom ñoo nekk ci benn barab. Mhm. di gisante lu ñëw ñu xam ku fanaan ñu xam ku fanaan lu ñu xam bu sëñ bi génnee ñu xam bu sëñ bi toogee ñu xam bu ñu bokkee ñoom ñëpp toog di waxtaan di ataayawandoo di xelliwondoo benn soow bi la ñuy naan benn reer bi la ñuy reer waaye jël sa jabar yóbbu fee kii ne fii kenn fële booy dem fee yóbbu yàpp fee boo fay dem yóbbu fonde. Mhm. ki ci des ku aaw bi dafa jaboot. keneen ki ci des jabootagul. booy def maanaam da ngay mel ni koo xamante ni nga naan kii moo nekk xale kii moo nekk mag du ñu mës a ñoom ñaar. wax dara nga ci mënut da ngay sonn rek. Mhm. te bu yàggee yow dangay dem ba suy yow da ngay bëgg a décharger waaw. léegi nag sëy bi yow ci sa jëm bu ko yan waaye yan leen sëy bi. yan leen ko. waaw noo leen ko ay soxna boo leen yore da nga leen di yan sëy bi. Ah. waaw. loolu de acca bisimilah sa ñuy jàngale. waaw. ay soxna boo leen yenee sëy bi. Mhm. ñu xam ne man sëy bi maa ko yor dama mhm. maa yor sëy bi maa sëy si dañ koy taaw. waaye yow ku góor ki boo bëggee yenu sëy bi. Mm. sa kër bu tasee yaa ko tas. waaw maanaam ne ci lépp di lijjanti. lijjanti lépp ay bi yaa nga ca. fóot bi yaa ngi xool ku lay fóotal. yaa ngay xool ku lay ataayaal. yaa ngi xool ku lay toggal. yaa ngi xool ku néegam set. yaa ngi xool ku néegam tilim man mën naa dem sama kër ba ñibbi si du ma teg sama tànk sama néeg soxna. Hmm? xaw ma seen kotu téléphone xaw ma ko. da ngaa yor sa néegu bopp. waaw te kilifa nga daal sëñ bi. ñoom ñëpp ah. lu sa yoon. waaye laaj déedéet loolu du laaj. man am naa sama kër am naa fa ñaari néeg yoo xam ne benn bokkut ak morom. Assane loolu waroo koo laaj sax. mën nga maa wér ci suuf ma yéeg ci kaw mën nga maa wér ci kaw ma yéeg ma wàccee ci suuf. Hmm. bi ci topp mooy man mën naa dem sama kër ba ñibbi si ma du ma dugg sama néeg soxna xaw ma ko téléphone am très bien xamuñu sama kotu téléphone. waaw ah, loolu de am man mi loolu dal na ma. yaa ngi dégg seen téléphone bu doon sonné nii nekk sama wet du ma ko laal. waaw foofu sama téléphone buy sonné fii doo ko man foofu ñoo fa bokk jikko man du jël sama téléphone soxna. sama soxna du ma fan laa dem ak fan laa nekk. Ah. kañ laay ñëw. Mhm. man it bu ma la takkee. Mhm. nar lay fiire booy xool fooy dem ak koo toogal ak koy waxal ah. ma wàcc la nga dem. daa dëgg la bu ma la mën naa laa fiire waaye bu ma la xasee takk ba nga dugg sama biir dégg nga wax ji bu baax bi ci topp mooy man li ma war sama digganteeg yow dinaa ko def ba mu jeex tàkk yow li la war nag boo ko deful sa problème la dëgg la su boobaa da ngay gis nag ma woo sa morom mu di ko def mhm. fekkee kiiwul nag fekkee ayewu ah li ma la xanaa ki def li ko warul ah, xam nga man Assane moom ay gee ko ñor fi mu doon ci ay gi la ne de maanaam ay gi daa am ñoo xam bi te xam dañ naan xam nga bu neexee bi waaw xam nga ah. tey maanaam jigéen mm. li mu gën a bañ ci àdduna mooy li mu war a def moroomu jigéenam defal ko ko xamoo loolu man nga aaye sama sama néeg ah, boo boo aaye woon sama néeg nga nga war voilà demal defaral ma nangam lële déedéet defuma ko pour ñàkk def yoon dama ko def pour corriger ko bu beneen nee du ko def déedéet déedéet doo toog continuer yow sama defaral li ma defaral ba pare man sama boppam ma yitteel soo defut yow li ma war li la war yow li la war sama diggante ak yow dinaa ko def ba pare waaye su ma ko defee dama lay bàyyi ak moom mais du ma ko séddoog yow mhm. maanaam jigéen def ci moom li war ba pare day bëggaat séddoo ko ak yow waaye boo defee ci moom li war ba pare bàyyi kook moom maanaam def ko comme mu nekk estati fa lay jaar dootul def yàlla lu ni mel. Mm-hmm. dóor ak saaga xaste ak werante yorul kër. kumpa it jigéen bëggu ko. Mm-hmm. jigéen maanaam kumpa mooy. maanaam kumpa yorub kumpa jigéen bëggu ko maanaam la ngay def ci seen biir maanaam boo ñëwoon tey jënd tissu nga yëwit ak kii kenn ki rek ñëw jox ko ne ko am li ñawlu ko mu dem ñawi ko. nga wéet ak ki la jox ko mu njëm ñaaw nga wet ak kee jox ko xamul ñaata lañ ko jox ñaw xaw tiseem lu mu jar ndax day xëy gis mu ko sol mm. kon bu kër gi tasee yow yow la man fi ne sama dépense su kër aaw moo ko yor mm. macha allah fi ne kuy togg soxna si ngay laaj très bien yére bu ma ko jëndee bu ma ñëwee damay damay jox ku ndaw ki sànni ko yére yi ne ko ñuy noonu mooy séddale moom bu ñëwee bu waree séddale bu ñëwee cër laa ko jox du ko aaki moo day jël ku mag ki jox ko Hmm, très bien bu mag it xam ne cër lañ ma jox samay rak lañu xaaral ma sédd leen joxaat ki topp ci moom. macha allah ki jox ci moom te di ci digg bi nag moo naan kii bii am bi kii bii am bii. waaw loolu mais loolu yaa cër bi day tourné ci ñoom ñëpp. man la rek. njàngale la rek. da koo <laughs> mu rafet ni continué tànd ko ah, xam di nga jàll <laughs> dinaa ko xam di nga di nga di nga ko jàll beneen bi topp mooy góor ñi ñoo dugal seen bopp waaw ci jigéen boo ne takk avant nga koy takk nga xool ko xam ne fiir gi ëpp na ko doole mm-hmm. yaruñu ko soo ko dugalee sa kër loo fa dégg yow la. dégg naa dëgg mu leer na kii bi nga ko takk bu rek mën na laa faat mën na laa faat mën na laa andil benn problème te xajalul kenn <laughs> xajalul sa mbokk xajalul kenn ci yow soo ànd ak moom dox ci mbedd mi sax boo xoolee jigéen ba ñu laa mbéj hmm. kooku boo ko xoolee ba dugal ko sa biir kër loolu la dal yow la waaw xam ne bi ngay doxaan ngeen di xeex waaw booy takk wéral jigéen joo xam ne ñaara ko tax a jóg hmm. dégg hmm. bëgg a sëy ak yar xool nga ba xam ne dañ koo yar am na lu mu jombale boppam am lu mu rusale bopp boo waxee moom sax boo yëkkatee ci kaw mu la wax balaa ñoo ñoo dégg wallaay wallaay nga ne benn jikkoo ngoog lem waaye koo xam ne boo nee benn mu ne tël tël tël pour nit ñi ñëw nga dugg ci moom lu mu lay noggatu la ko def koo xam ne boo àndeek moom ci mbedd mi nga dajeeg beneen xale bu jigéen daal di ne yii seetlu ko rek tooñ ne na vidéo yoo xam ne boo ko ma jéngee fi mi dama am fu mu a jéng damay takk ñeenteel ak damay takk nangam ak yenn saa ko kaay kii de am mm-hmm. dama la koy dégg-déggal sa nopp yi mm-hmm. ba nga xam ne xel mi bu xëyoon am suba sax war naa am yow du la bett da dem ba miis ko mm-hmm. waaye boo xëyee bëgg ko koo yen waaw dëgg la te fekk fekk fii raa ngegum dii sa fa nekk mm-hmm. du ko attan beneen bi ci topp dañuy naan góor ñi lu gën a bees gën a yay mm-hmm. man fa mu gën a beese fa laay gën a yeyee ca ña fa njëkk sax nag faf mm. waaw luy loolu sëñ bi maanaam dañu naan boo takkee séet fa ngay jéng aw maanaam boo takkee séet rek jéng aw fa mm. ba say ñu njëkk ña xam ko mm. andi nga problème sa boobu oh. parce que dañu commencé di ko siis pour dàq ko mm-hmm. la ñu amoon jigéen xamul luy wàññeeku luy yokku la xam boo hmm. ko takkee man fukk andil juróom teg ci taabal ji mu jël juróom yooyu di tàccu soo xëyee suba teel ba war a takk ñaareel indil juróom benn teg ci kaw taabal yi boo takkee ñaareel ba pare defal juróom-ñaar dencaat yeneen ñett yi toog di xaar hmm. waaye boo bëggee takk ñaareel tax nga dem ca ñaareel ba di ko ngoroo sa aawo sama aawo bi nii sama aawo ba nële hmm. am naa lii ah, mën naa lii péditi patata ba indi ko ci biir kër gi mu ñëw la ko waxoon gisu ko ci aawo bi la ko waxoon gisu ko ci sa bopp hmm. da wanaat ginnaaw dem donc te yii yëpp sëñ bi ku ci nekk dañ koo jël jox la wala yaa ko gisal sa bopp taamu jikkoo ñii ñëpp maa leen gisal sama bopp aawo bi moom sama loxo yaay la jaar hmm. mooy mooy kii féete ak waaw waaw mooy ki féete ak man kooku sama jarabaat la yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey wax ñi ci des moom maa leen gisal sama bopp ñi di ñi di ñi di mais vraiment nag ñu baax lañ waaw loolu laa gis man loolu laa gis parce que gis naa ci live yeeg yooyu ni ngay doxalee waaw ñu baax lañu ñoom vraiment ay xale lañu waaye xëccoowuñu dara fii ne boo yoroon cent franc dem di leen ko may koo ko jox da danaan joxal diw nga jox kee danaan joxal diw parce que li tax mooy jàmm ji nga gis ma indi sama biir kër ni teg ko ak ñoom di reetaan di kaf di ree ñoom bëgguñu ma koo xañ parce que dañ maa bëgg xam nañu ne man télé bi tàkkuti nii lañu mel nii la ñu mel naturel ca kër ga nu ko raw la ñu mel am na ci image yoo xam ne ñëw ma ko dugal TikTok dama ci am image yoo xam ne ñii moom ma koo digal dugal TikTok am na ci boo xam ne si bu mujj bi da fekk sax ñaareel bi ak kii di jàngal aawa bi dinaan ko dañoo bëgg nga mën a lire ndax ngay mën a lire sa commentaire yi mm-hmm. da ngay retaan ba son yenn saa yi nga gis koo xamante ne nii daanaka mën na jógee néegam sax dem néeg keneen kii du fa gonal ba fa fanaan fa ah loolu baax na loolu baax na moom ba pare ba pare nag sama kër lenn moo fa nekk amul lekke kuddu loxo rek juróomi baaram yi loxo rek gis nga lekke day xàjj ay xol lekke kudd day xaj yi xol yàlla ba mu la defalee juróomi baaram yi saxal ko sa dénkub loxo bii dalaa wan la lépp daa war a booloo ah, tànk bu baax kii dugal lekk kee dugal lekk kee dugal lekk ah. lépp benn lay doon mu jaxasoo de si ceeb bi kii tib fii kii tib fii day dem ba ñu nooboo ci seen biir hmm. mais du béjjën mbaa nangam wala noob moo def waaye lii daal leen ni seen yooyu ah, dugg ci déedéet dara dugg ci daal yow yaa ko animé daal lépp maa ko animé te bu ma gisaatoon keneen dinaa ko takk te bu ñëwee ni ñoom lay mel ba mat ah xaw ma juróom-ñaar xaw ma juróom-ñett. waaye ah, daal juróom-ñaari soxna dégg nga. Ah, ah? na ba mat ñaar dégg nga yow yaa ne ba mat juróom-benn. yaa ko wax juróom-ñaar ak juróom moom buy wax damay dégg mu naan kenn ki des lay laay dégg muy wax. waaw ah kenn ki desagul bu keneen ñëwee mu ne ki des. takk moom dinaa ko defaat fii laa ko wax télé bi. ah dinaa takkaat kay. ñeent yi kay day mat te ñoom ñëpp ay maase. non hmm. ay jabar boo bëggee njuboo nañ maase waaye boo takkee aawo

di wax ni naa ko ñu ah. takk ñeent yu ñu tolloo ah, bu ñu tolloo rek juboo parce que xoolal rob ñuy yi sol ñoo koy nduróole ah, ñooy bokk benn ñaw bi dégg nga boo seetloo image yëpp ñooy bokk li ñuy sol xool nga mm-hmm. lu kenn ki sol keneen ki mën na koo sol ñoo bokk benn dàll yi lu kenn ki teg ci bopp bi keneen ki mën na koo teg ci bopp bi yaa ngi dégg mm-hmm. lu kenn ki takk ci baatam mën na ko waaye léegi bu ñu maasewul woon est-ce que robe yi ku am 40 man ñeme na koo sol di génn ah, déedéet déedéet su boobaa nag kii bu maanaam ku mag ki bu ko xoolee robe bi rafet danaan def maa bëgg a màgget loo léegi bu fekkoon aawo bi tey ay doomam yu mag ne ci biir gi ndaw ki def nii robam di waaxu ci biir kër gi ñoo xam ne moo ko sam papa la dañuy mere ku ndaw booy dëgëree bul lan sama yi fekk ma ci dañ ma koo mën a tey <laughs> mais asal li imaam Babacar Sy loona asal dafa koo bu booy dëgg rek mais ci tontu bi booy fekk ma ci. waaw booy fekk ma ci bëgg ma koo tere. waaw Assane nañ génn foofu baax na. kon boobu mi ngi noonu exemple la ci ñun ñi nga xam ne ay góor leen lépp man li ma ci gën a neex rek mooy euh, bennoo gi ñu doon. ak mm. euh, ni ñu nekkee ñoom ñëpp ci jàmm. parce que loo ci moo ci gën am solo. xam nga takki jabar di teg yomb na. ku ne mën ngaa takk ñaani yomb na. Mm. joxe can yomb na. mais boole leen nos leen ñu ne ci benn buum am mm. fulla ak fayda yor leen moo jafe. looloo jafe waaw lii nag en tout cas sa kër moom mag ñi la may fàttali. mag ñi nii lañ daan def dañuy nos kër gi ba mu nekk benn Ah. ñu téye ko xam nga ne ku man la ni mën naa ñaan war nga koo gëm de waaw dëgg la waaw jigéen ak ni mu balee calang-calang waaw bëri affaire ak i bagaasam nga boole ñoom ñett ñëpp ci biir kër gi coow jibul la ne dëgg dëgg waaw ñoom man tey jii Assane bàyyi laaj ma ñeent juboo ba tey jii sax benn soxna aaya may beneen soxna ko demal luy loolu Assane mën naa ne loolu saxal da cee <laughs> lu mu bëgg mu bëgg a def. fii la koy da koy testé fii lay. mu ko def boo ko waxee mu dagg ko estati ko. waaw bu paree nag dagg ko. Eh, estati ko ba pare di clash. <laughs> génn demal <laughs> def loolu xool. mi ngi noonu euh, sëñ fàllu Goumba la. Euh, mbokk yi kon li ñuy xam naa ñi ngi ñëw léegi ci mbëkk mi ak moom xalaat bi mu ci am loolu lañuy ñuy jeexalee dañuy ñëw nag euh, directement ci li nga xam ni mooy dëkkam bële nga xam ni mooy. Mbaari Ndondol. Mbaari Ndondol. Mbaari Ndondol. commune. Ngayoxem Ngayoxem. Mm. dañoo gis euh, sëñ Fall da won wan yi nga laaj ko vidéo yi dina la ko illustrer moom dina la leeralal lii lan la fan la ak lu mu ci bëgg ak maanaam acte yi muy def ndax ak ci bëgg politique la wala lu xew. wàcc. Hmm. la nekk fan la nekk ak yooyu. Hmm. oto bi de waaw Bari Ndondol. Hmm. mu ngi commune do Ngayo Xem. Ngayo Xem euh, ci région Fatick la bokk. Ah, arrondissement Niakhar. ñaaxar ah, waaw. man nag village de Ngonin laa bokk. waaye Bari Ndondol mooy dëkk bu mag bi nga xam ne maanaam moom la ñu gën a xam. Hmm. man Ngonin village de Ngonin laa bokk. waaw léegi nag. Euh, boo koy boo jógee Dakar Bambey tax ngay jaar wàcc daw 18 kilomètres ci suuf. yoonu suuf bi waaw 19 18 kilomètres jàpp 19 nga yegg ci dëkk ba. Hmm. ñëpp samay dëkkandoo lañ. lii bi ñuy bi ma leen di may courant la mooy ligne privée yi nga xam ne waaw jël samay million def ko ci joxe ko te yàlla rek tax waaw da ciy ànd ak da ngay dem Sénélec proposer euh, daal di financer waaw damay def samay demand su ma defee sama demande ne leen dama am dëkk yoo xam ne dañoo bëgg courant gisoo ko nii amuñu courant amuñu hôpital amuñu nangam def samay demande jënd jënd samay matériel dërëmu état nag demu ci Hmm. fukki dërëmu autorité demu ci man maa jël samay million fexe def ay kilomètres di ko maye courant te caaxaan defu ko. dëkk am na courant naa fa courant. Hmm. waaw. mooy ndondol. baari ndondol. mu ngi nii. ah lii mooy bi ñëwee di ko samp. waaw bi ñëwee di ko samp. fexe naa it aussi ba forage ya ma fa ma fa fekkoon muy joxe ndox boo xam ne ndox bi. dafa xaw a naqari jigéen ñu bari boo ko naanee da ngay am jafe-jafe boo ëmbee wala it góor ñu bari di ko naan mën a am ay prostate fexe naa ba commandé ay machine Chine indi ko ñuy filtre ndox mi ñu daan ko jëndee paquet bi huit cent ma def ma fexe di ko jaay téeméer pour ñëpp hmm. mën a naan ndox bu neex dëkk bi yëpp macha allah ah. fexe naa it ba dañ daan bojj di soq di wal loola indi naa ay machine ba fexe naa ba dindi naa ko fa wàllu mburu it ay kilomètres lañ doon daaw booti ko fexe naa ba fi maa ngi koy taxawal boulangerie hmm. hôpital yi dañ doon am jafe-jafe lancé naa hôpital ak école privée yoo xamante ne nii incha allah di leen jàng alxuraan di leen jàng français ku feebar dana faju mais ku seen maire est-ce que est-ce que gis na acte yi jéem na la. tàllal loxo ah moom mu ngi koy gis mais. mais jéem la rencontré benn yoon. non non rencontré wu ma xanaa di ma jéem a. tàggal ci suuf ndax dañoo yaakaar ne. dama leen mooy nguur gu njëkk ga ñoo daan def. waaw ñoom ñoo fa nekk. ba léegi ñoo fa nekk ba waaw ñoom ñoo ma xaw a nii sax ci yu bari ndax lu bari dama koy yëg fii may wax nii làmp yi ngay xool nii. Hmm. actuellement nii may wax ak yow daf ci am lu lakk loo xam ne moom moo am droit taal ko. Ah. jënd ko mais fii may wax ak yow dañoo lànk na duñ ko jënd te dem naa ba proposé leen bàyyi ma jënd ko ñu soppi ko man fay dépannage bi mais dañoo bañ parce que lan ligne privée yi ci nekk. réew mi de saa ah lii te gaaw a dem waaw te mu bari ay mbir yoo xam ne man. mën naa yëkkat sama alal def ko fa te yàlla rek tax waaye su ma ko defee dañu yaakaar ne acte politique la wala dama leen faa bëgg a jële mm. te nguur gi fi njëkkan ci la ñu bokk moom waaye gis nañu ni ma mel ak président Ousmane Sonko li ma mel ak Diomaye ci xeex beeg nangam ak nangam acte yi may def lan lay préparé lan la bëgg man dañoo foog ne peut-être sax dañoo ne sa ginnaaw waaw waaw waaw wala nangam wala dama leen bëgg mais léegi nag dañoo dem askan yëpp rangé wu sama ginnaaw ah, fii moom parce que tamit ñu sampal fa la liggéey non non mooy li mu def yow ko defal waaw yow loo ci tële rek daa waroon maa waroon na ñëw. Ah. soutenir ma. si mais defuñu ko. au contraire moo ci nekk ay jàppante daal yenn saa yi mu am ci. chat yaa ak ñoom. waaw. mais waa dëkk moom yow lañu àndal. waa dëkk ba moom man lañu ah, àndal dëkk bi yëpp man lañu àndal. Kaama defaral la. <laughs> Kaama defaral la dëkk bi commune bi. Mhm. ñëpp man lañu àndal ci télé laay wax. parce que d'accord léegi parce que damay dem ba ci wetu këram ba wet biir dëkkam moom bi mu dëkk. Mhm. ma fay dimbali ay nit. macha allah man damay toog dem hôpital ba fekk pharmacie bi nit ñi taxaw ma laaj leen ordonnance yëpp ñaata la ñu wax ko ma fay ko ñibbi. macha damay dem hôpital xool ña fa gën a sonn ma jàppale leen. ndeysaan damay xool gox yi nga xamante ne soxlañ courant amuñu ko ma fexe ba dugal fa courant def ci million. ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne sama kër du ma toog fii di ko wax bari na ci ñoo xam ne tey am na beneen vidéo boo xam ne boo ko xoolee ceeb la ak déwlin ak ay nangam nangam buntu kër gu ci nekk danaa xool ña nga xam ne xëy na peut-être que seen doom màgg gu ñu war seen doole jotee gu fa ma yóbbu bàyyi bu guddi ma taal sama oto wàcce fa ceeb wàcce fa aw dund woo xamante ni euh, ak ak nangam ak nangam ak yeneen ak yeneen. Mm. te pareegu ma te lii tàmbali la rek. d'accord parce que xam naa dëkk ba. Mm. fa laa juddoo fa laa màgg te xam naa it ne mën naa faa jaamu yàlla ci ñoom. soxlawuma fa dara. bu doon nguur ak fal ak nangam nangam luy meer. keesu maire mënu maa yor di déedéet ci koo xam ne sëñ bi maire salaire am de seen salaire bu tegoo ci yoon àggut àggut un million koo xam ne média bi yëpp adduna gépp d'accord nañu ne gis nga moo nekk ni euh, adduna gépp d'accord nañu ne hmm. mooy ki gën a jafe jot tey ci Sénégal sëñ Xaadim nga morom jaaro bi la yow de waaw ok kooku bu ko àdduna du ngitteeloon ak aw tur kon damay toog teel sama téléphone di xaar ko moo woo léegi vidéo bii ngay wax ni lan lay expliquer mooy bi nga joxe dund bi vidéo bii mooy bi may bi may taxawale daara ji xeer bi Mhm. daara ji gis nga birig yaa ngi nii muy internat waaw internat bu ànd ak hôpital gis nga birig yaa ngi nii gis nga ko mhm. trois hectares la yoo xam ne maa ko moom gis nga suuf si lii yëpp tàmbali nañ ko birig ay xale yoo xam ne ba fas naa yéene def ci ñoom alxuraan ak xam-xam mhm. boo xam ne jàngal leen fayeekuwuma fa kenn dara jamono jii may wax yow maa ngi ko commencé jaamle naa jàngale daaw am na ci doo sama doom boo xamante seetaan nga ko mu ngi tari mhm. sama xaalis euh, ka fay jàngale sëriñ bi di yoreel ko tëdd ak añ ak reer ak ndékk ak lépp fayeekuwuma kenn dara nañ mhm. mokkal alxuraan rek ku mokkal dem dimbali sa waajur te loolu laa bëgg a defaat fii macha am na solo léegi beneen vidéo bi sëñ Fall dañu koy wan ñu euh, waaxu tuuti lu waa jëm ci wàllum tali xam nga tali moom ay moyen moo koy defar yow dégg naa da ngay jëm ci wàllu defar ay jéem a defar yi taleeg ay yoon ak def yëf déggoo te loolu état doole état la war a doon état koy def kay déggoo sànq ma naan la def bi rek déggoo sànq ma naan la nañ jaaw ci émission bi ndax daa benn entrepreneur bu ma war a dajal nii mhm. ñun ñaar euh, maanaam yoonu dëkk ba mhm. dafa bari jafe-jafe yoo xam ne mhm. tey commune Ngaayu Xeem képp ku fa feebar dab guddi wala sa soxna di wasin guddi mu tombeek jamonoy nawet musiba dal la hmm. yoon yi naqari nañ yoon yi bon nañ amul courant amuñu moyen transport hmm. hôpital yi amuñu ambulance waaw ah, loolu jàngoro la bu méttee métti comme nu ngay xem ci télé laa koy wax hmm. te loolu war na faa mën a jug te seen maire moo tudd Demba ok Demba Diouf te yooyu war na faa mën a jóg tey la mu fa mën a jóge mooy bu ñu dundeewul état bi waaye di fexe du dundal état bi rek day baax maanaam bu ñu dundee askan wi nañu dundal askan wi. Mhm. tey yoon yooyu fa nekk borom tool ya fa nekk nga xam ne tey ñoom ñooy jël ay pono di gas. Hmm. ak di tere ko fa jaar ak nangam nangam ak def ay ay ay ay yëf maanaam ñoom ñi nga xam ne ñooy préfet di tey ji maire ñoom ñoo ëpp sañ-sañ ci suuf si. kese ca borom tool yi te mën nañoo dugg ci biir ci population bi waxtaan ak ñoom xamal leen lii ñu def inconvénients yi ci de ak fan la war a mën a jaar sëñ Fall bu dee am nga image mhm. a waxtaan ak ñoom xamal leen euh, di def kat lii moo ci nekk tey ku sa sa soxna doon am doom nga jaar fii ci biir ndox mi ne fan nga jëm mhm. man nag maa dem ba xool loolu xam ne benn solution rek laa mën a def waaw mooy xaaral ma déparé sama biir commune muy déparé Toucar jëm si baari ndoor xoolal xam nga image yi. lii ci ab commune. Uh-huh. ab déeg la ah. ab déeg te lii ngay xool dañ koo ñag ba nga xam ne boo ñëwee yor oto tey wala nga yor saret ci biir doo nga mën a jaar gis nga dégg yaa ngi ne la euh, ci biir. ci ab commune ah. ndax ko. pour kenn du jaar ci seen biir biir tool yi. mais oh. lii bu maire sëkkoon fii tey def defar ko ba mu mel ni mu war a mel xàll yoon wi ba bu ñëwee xam fi seen mbay yi war a yem. Hmm. man man baykat laa comme ñoom. Hmm. fa laa dëkk tey kon lii du am. mais lii Assane sa soxna bu doon am doom tey guddi amul courant amul dara ndox mu toll nii nga war a jaar ci digg bi pour yóbbu ko hôpital te yoon bii moo dem ci hôpital ba waaw hôpital bi gën a mag yoon bii moo fa jëm fii ngay jaar ci biir xur bii guddi xoolal digg yi ni mel nga yorub charrette ah, yoroo oto amoo ambulance fan nga jëm lii ñu ne maire yi mu nga fa lii préfet di ko gis ni ci xool commandant de brigade de la gendarmerie di xool lii lii dafa ñaaw lii doo fa jaar jigéen ju wér ah nga jaar fa jigéen wér jaar fa feebar ambulance amul guddi bu amoon courant waaye tët lay def day lëndëm boo talalee sa baaram bi nii guddi doo ko gis. Uh-huh. ndax mu lëndëm ñu def ko nii. Oh, ñu ne ñun ay jullit lan su ma génnee wax ñu bari xëy na ñen ñi naan am na ci ñoo xam ne nañu ay otoom la utal fu muy jaar ak nangam nangam déedéet. man uh-huh. am naa kër Thiès su ma neexoon yàlla taw ba sewet te sama tànk du teg tege dëkk ba. Uh-huh. dëgg la am naa moyen bu ma jaaree fii yor naa jënd oto yu mag. jaar fa. mais damaa xam li askan wi di dund ci yoon yi moo tax na ma engagé wu mhm. pour taxawal lii ma jéem koo saafara mhm. su ma ci état fekkee alhamdulilahi rabbi alamin su ma ci fekkut fu sama doole yem ak askan wi pare naa pour lii moom day dakk day dakk dootul am lii moom dafa ñaaw moom trop ci koñ bu ñu ne ci euh, euh, maanaam gox bu ñu wax ni am na maire am na maire am na lépp am na ah, lépp a nga fa ñoom ñu ngi koy gis parce que fa la ñuy jaar ku la ci ne nag taxaw ne la gisuma lii wax na la lu ko ne. te yow mi koy defar au lieu que ñu jàppale. mais dañ lay jàppale ma dañ may fakastal parce que tey askan wi war a rangé wu sama ginnaaw war a maa jàppale eggaguñu foofa waaye suñ fa eggee lii dafay jóg. Mhm. te bu doon yow ab politicien nga sax ma ni waaw. mais ab doomu daara boo xam ni. lii nag jar ah, mënu cee des. lii ah, lii ku fi jaar a guddi yor yor yor lii que bakkan mënu fee des. léegi lii nag yàlla dimbali la nga am moyen. am xam-xam ak connaissance boo boo ci indee say kii nga toog di seetaan bu bakkan wadd fi ndax yàlla du la ko laaj ëllëg. kese loolu mooy ban lii moo ma ci dugal moom daal utal sa booy bu wex xat bu jàng def lépp nga teg ko fa ba mënta nekk maire déggoo li ma la xanaa utal booy bu wex xat loola laay def dégg loola laay def nekkal député non moom il faut mu wut booyam bu wex xat moom mi nag hmm? kaasal mën naa nekk maire nekk député kaasal ñëpp waaw ñëpp sëriñ Boub de lii ko dugal ci mbir yi kese ah. loo ci gis tey bi ko président Diomaye yóbbaale Chine. Mhm. amul avantage yu fa génn. Ah, suñ ko ndaaw doon naaj nag nii ñu may def. Ah. tey jii romb na fi mu toll. dëgg ah. eh, mais ñoom da ngay du ñu defar. te booy defar ñu lay naaj. nga dem fekk leen fa a. jeex na tàkk nag bi ñu fi jëlee ñii. bi Diomaye di dem bari dem yóbbaale ko Chine amul lu fa feeñ. wallaay usine bu ñu doon dindi barki démb di ko di ko inauguré gisoo ko du jëriñu askan wi nañ bàyyi suñ caaxaan yi ku nekkati ci dëgg ñu jàppale la ku jërëjëf euh, Assane kon nag dañ koy mujjéeg rek euh, mbëkk mi nga daal di ci lii moom am na solo te xam naa ni man gëm naa ni président dana ko gis. Mhm. parce que fii solution sëñ Xaadim. Mhm. xam naa nag seen ñaan la mais yàllaa ko barkeel. Mhm. lu fi jaar kii féeré moo tax ñaare lu ñu fi waxit itamit day dem. moo tax gëm naa ni lii moom kilifa yi seetaan nañ ko dinañ ko gis te solution dana ci man daal euh, sëñ son yi. maa ngi wax le président Diomaye. et premier ministre Ousmane Sonko. ak waa gouvernement bi yëpp. ak El Malick bu dee tali yi. ah ñoom Amadou Ba suma xarit biram Souley ñoom ñëpp maa ngi leen di lancer appel di leen xamal ne problème mu askan wii rawatina commune Ngaayo Xem man xam naa ci am naa ci ay solution yoo xam ne. incha allahu taala suñ ma ci fekkee. maa ngi ci suñ ma ci fekkul maa ngi ci askan wi nga xam ne it ñoom ñoom ñoo leen tax ñoo leen fal ñoom ñoo leen tax a jóg. xam nañu ne man sëñ xaadim maa ngi ci ñoom te incha allahu taala askan woowu laay àndal. te liñ ma sant laay def. macha allah waaw. am na solo Assane kon ñu jeexaleeg mbëkk mi fa ngay dooree ak moom mu joxe ci ay xalaat ak lan mooy solution bi tax bu ñu ko defee ndaw ñu toog fii. waaw sëriñ xaadim ndaw ñi de ba léegi ñuy continuer di songu géej gi waaye li si gën a yéeme mooy ndaw loo fekk mu génn àddina rek bañ jàpp génn ndigg li mi ngi fees dell ki ndomba ñoom sëriñ séeréer ñu ko defal ñu da nga àgg yéen loolu lan moo si seen. bu leen wax ci sëriñ si. da ngay da ngay ci ndombo yi da ngay wax ne ndombo yi dóorkat yi leen ko jox. Ah. dóor kat yi. ñoo leen ko jox xam nga nit nit ku ñuul daa bëgg koo nax. Hmm. xam nga ki taxaw ne la ndomba gi boo ko takkee. da nga dem ba àgg da nga dem ba yàgg te doo dugg ci ndox. waaw saafara bi boo ko sangoo di nga dugg ci ndox ba yegg te doo te doo nangam. nga ah. ñëw fekk doomam bu góor ak jarbaatam ak nangam ak moom ci jëmmi boppam jaaruñ ca ndox ma. <laughs> nga jël ndombo yi takk ko sangoo ko ba pare dugg ci géej gi mhm. soo deewee yaaree sa bopp soo ko joxee sa xaalis yow la nax mhm. man su ma la soo ma nee mën naa nangam ni ma ko ñaanal balaa maa def dara dinaa xool sax njaboot ndax gis naa ko ci dëgg la mhm. su ma ko ci ba pare ma door la yëkkati sama xaalis dina dëgg naa dëgg de waaye ni nag may ñaanal loo xam ne yow defoo ko ci sa doom defoo ko ci sa jarbaat defoo ko ci ku mu bokkal ndey ak baay defoo gisuma ko ci sa jëm ma yëkkati sama alal di la ko jox pour lan ni Sénégalais yi ñoo bëgg ku di nax mën naa naa mën naa laa jox loo xam ne boo bu ma la ko joxee léegi nga dem ca banque ba dajji banque bi waaw te yow mënoo ko te yow loolu ngay wax noonu bu ma la ne defal ma ko li ngay jëkk a def mooy fay ma yow lu tee nga defal ko sa ba dugg fa mm. dem dajji banque bi <laughs> daa nga dëgg de boo daajee banque leen nga nekk millionnaire léegi nga nekk ab millionnaire waaw dëgg dëgg mais dafa am loo xam ne ay tappalee caaxaan def koo màggul mm-hmm. mën naa def loo xam ne bu ma du ma dee ci ndóol wala boo balaa waxtu waa jot bis baa dellusi nga nekk millionnaire. Mhm. yow kay kon jartul ngay toog ci réseaux sociaux di ñaan. waaw defal ko sa bopp rek. mbala même sa bopp sax dafa sori ndax boo leen waxee dañ naan paaka du wat boppam. Mhm. kee sama rak la ñoo bokk ndey ak baay naa ko defal. waaw waaw. ne ko nag dama ciy am pourcentage. Mhm. kon jartu may toog fii di wax di. Ah mais am na ci yoo xam te man ñi may àndal yépp ñu ngi nii di ma dégg. sama entourage. barke alxuraan ku dul état attanoo leen jox naa leen gën ñu ngi nii di ma dégg jox naa leen cër kenn ku ci nekk. bool ceeb bi ñuy lekk dana dana. la war dégg bàyyil ceeb bi. lekk ñoom lekk déggoon ñoom ñu ngi nii toog kay. <laughs> waaw di ma dégg ci tele laay wax. man rus naa sax nit faju si sama kër jënd fa añ mbaa nga jënd fa reer mbaa nga jën fa ndékki mbaa nga fay fa luyaas mm. ñii faju si mbaa nga naan fan jënd fa ndox naan même patient yi malade yi ñëw sama kër ku fa ñëw lu mbooloo mi bari bari bari la fay lay fay lekk ak naan lépp ak fa ñu tëdd man maa ko garanti ba keroog ñuy ñibbi. ki àndee ki indiwul laa ne képp yemale sama biir kër. d'accord léegi mbëkk mi saafara bu duutu ñu dem. mbëkk mi. Mhm. saafara bi daal ñaar la ba ci ñett. Mhm. ndax gis nga ñii naan dañuy def campagne de sensibilisation bu ma ko gisee. pour mhm. xale yi bàyyi mbëkk mi day ma damay leen di xoolee reetaan. Ah, am na solo de sëriñ amul njariñ. campagne bi ñu def. gis nga ki jóg di dugg gaal ne day dem Espagne. ñaar la teg ci lu mu lay wax Barça. wala Barça kon kooku xam nga ne dund ak dee la yemale. Mm-hmm. waaw ki rep. Mm-hmm. ak ki bëgg a tuxoo yam ko wax lu mu dégg. dégg naa dëgg. ki jóg pour dem Espagne ne day jaar ci gaal. yow boo koy wax waxi dëppal sax da koy tànqal. ay ree moo koy jàpp. Mm-hmm. xuuxal ko nag tegal ko ay néew defal ko lu ne. waaye du ko du ko déranger. parce que li tax mooy la mu jànkanteel ci àddunaam te mun da jël paaka ren di boppam mën da li mu mën a teg ci taabal ji mooy naa def loo xam ne ni dund mbaa dee moom lay teg ci taabal ji dundu mbaa dee nag mooy naa jaar ci gaal gi dem tekki mbaa ma jaar ci gaal gi dem des si biir ndox mi lii tiitalu leen boy yi lii dérangé wu leen barki Cheikhul Khadim bu ñu ko seetaanee dañuy reetaan yëngalu leen uh-huh. te président de la république mën da utal ndaw ñëpp ab liggéey uh-huh. déedéet mënu ko réew moo dem am na chômage uh-huh. réew yëpp am chômage am na ñoo xam ne réew moo am na banditisme am na voyou lii nag solution bi yëpp leen la première chose mooy nañu yar xale yi ci biir kër gi jikko yi nañ leen defar dugugaal xam nga ne nit ku nu yar dëgg dëgg dëgg def ci moom li ñu war a def ci moom du xoolam ndox na jëmbal ci biiru gaal di dem waaw dëgg la yow mii bu ñu la doon tegal ay millions mm. ne la kaay dugg ci biir gaal gi dem ci biir Espagne bi xam nga doo ko même boo toog fii loo mën a am daf lay doy wallaay ma ñëwee ñun ma sax salaire u cinq millions nii mi tax da nga leen du ko def waaw nan leen yar boo seetee ñiy dugg ci biir gaal yi yëpp na nga xool seen slogan ngëm-ngëm bi ñuy am da nga ko xool booy jaar ci gaal yi nanga leen ne jàkk xool leen ak ñi ñu àndal oh. Oh. waaw beneen bi ci topp mooy xale yi ñu yóbbaale parce que xam nañu ne boo duggee gaal wàcc Espagne ànd ak sa doom muy ab liir wala xale bu ndaw tubaab yi balaa ñoo laal ñenn ñi ànd xale yi lañu xale yi lañu njëkk a këf ana yaayam ñëw na ñu ne waaw ana baayam ñëw na yow centre bi ñu lay yóbbu. du bokk ak ñee fa ñu nekk ñoo yor sa lépp. maanaam da ngay a mucc. da ngay a mucc ki yóbbu xale moom mucc na. loolu moo tax ñu yóbbu xale yu ndaw yi. man kay moo damay gis ku que liir bi bu eggee ci biir maanaam ci biir bi bato bi bu ko karee ci gaal gi bu karee gaal gi ci yi la ñu njëkk a jël jël yaayam parce que du yóbbu liir bi kase bàyyi fa yaay mm, mm, mm, yow dañ lay jox foo xam ne nii maanaam dara du fa manqué balaa ñoo def dara utal liir bi kayit te liir bi fu mu amee kayit moom yaay dina am kayit baay ji am kayit doom ya mu bokkal bàyyi sax bu ñu bëggee kayitu Espagne dañ koy am loolu tax ñuy fëkk xale yi di leen yóbbaale xam nga maa ñoom nii la ñuy def tout le temps dañuy déggante loolu tax ñu yóbbu xale yi lii moo tax kay moo tax ñu yóbbu xale yi mm-hmm. léegi nag li ñu mën a def mooy solution bi solution bi mooy nañu wax ci salaire u réew mi Mhm. solution mbëkk mii bu ñu ci bëggee wax nañ wax ci salaire réew mi. salaire maanaam. salaire yi ñuy fay liggéeykati réew mi tuuti na tuuti goo xam ne bon na bon goo xam ne. Mhm. mun boo ci maanaam boo ci jëndee ndékki. Mhm. paas ci di nga xëy sa yaay laaj la doo am loo ko jox sa baay laaj la doo am loo ko jox facture courant ñëw doo ko fay. leneen ñëw doo ko fay sa sa nar a sàggeeku ci sa kanam sa waajur wu jigéen bëgg a boot ay loxoom dem di ñaani sa morom loolu dem ba ngaa mën a dem tëdd ci kaw tali bi oto jaar sa kaw nga wute ko képp waaye boo ko mënul nag ni ma mën a def mooy naa yéeg ci gaal gi dem dëgg la dëgg la tekki mbaa dee Sa hmm? yee bon si a yi bëgg nañoo liggéey de. bëgg nañoo toog ci réew mi. Hmm. bëgguñoo des si biir ndox mi mais salaire yi ñoo jaarul ci aw yoon. te salaire yi nag ñàkk a jaar yoon gi yëpp première solution bi ñu mën a def pour jaar yoon. mooy li nga xam ne bu ko sénégalais yi bañee étranger yi nangu ko nañ ko fi avancé. mais buñ ma fayee journée bu ko sénégalais yi bañee étranger. étranger yi nangu ko waaw waaw waaw ma fayee mi ne nangu ko. ko waaw. léegi sénégalais bi dem chômage kii nga xam ne nag lu mu yor yóbbu ko ci ab dëkkam. Hmm. dem nangu ko te moom fan lay fanaan fayut luyaas fayut impôt fayut courant fayut ndox. bu yolee carton sax mën na koo lal fii ci mbedd mi hmm. mbaa mu defar benn genre pousse pousse am boo xam ne bu guddee mu lal carton dugg di fay courant ak ndox di fay impôt mm-hmm. bu jëndee tàngal sax ñu dàgg ci impôt nangam nangam dégg naa mm-hmm. nit ki fépp foo xam ne warati na faa liggéey mm-hmm. yaa ngi dégg ñu war ko faa fay soixante quinze mille du ñu woo benn étranger di ko fay cinquante mille francs beneen bi ci topp ci problème salaire yooyu mooy benn poste boo xamante ne nii dix personnes war a liggéey sëñ Xaadim xam ne fii poste dix personnes la mu ne xaaral kii sama jarbaat la kii sama rakk la jël poste dix personnes yooyu yëpp jox ko ñaari liggéey su waroon a fay dix personnes yi cinquante millions bu fayee ñaari yooyu quinze millions. Mhm. ñu liggéeyal ko ko trente cinq millions des ci poosam lay delluwaat. quinze millions ñaari bu ñu ko waree liggéey dañuy woo ay étranger yoo xam ne bañuñu dara. Mhm. loo jox ñu liggéeyal. Ah, ñu jox leen ko avec ça réew mi mën na avancer. du dem fenn. macha allah loolu mooy première mooy deuxième cas bi. dégg nga wax ji troisième cas bi mooy problème mu visa yi. ak ambassade yi. Mhm. ñoo ngi bëgg a rey booy yi de. benn journée. dépensé ba pour nga jël rendez-vous. deux cent mille cent cinquante mille lan la koy jaayee. soo eggee frais de dossier yi presque day bëgg a lekk trois cent et quelques mille. Mhm. dañu téye sa passeport lu mat ñaari weer wala weer ak nangam doo déposé ci beneen ambassade ngay kay kay ngi di xaar. Mhm. wala lu mat quatre mois. suñu paree dañ lay rejeté delloo la sa passeport. xaalis ba niil. te kenn du ci wax. boo yi boole loolu yëpp. Mhm. xam ne man mën naa ñàkk six cent mille wala sept cent mille yoo xamante ci ambassade bi damay tante ñaari yoon ñetti yoon boo xamante ni sama un million et quelque mën na caa te gaal gi boo ci fayee trois cent cinquante mille wala quatre cent mille mën naa dem lan la ñuy def dañu jaar ci gaal gi projet mu ambassade yii suñu ko réglé ba booy yi di déposer normal ñuy bàyyi vi ñuy jaay rendez yi ñuy jaay euh, frais de dossier ñu wàññi ko wala bu ñu ku ñu duñ la delloo dara waaye buñ la mayut am nga fa 80 pour cent yi dañ la koy delloo wala 75 pour cent yi ah, léegi booy yi bàyyi gaal gi di jaar ci ambassade bi di dem déposé ji kenn bëggu la dee macha allah jërëjëf sëriñ Fallou Gumbale nee na ma daanaka am nañu ñaari waxtu waxtaan wi neex rek waaw daanaka ne am nañ ko de ah, <laughs> waxtaan wi neex rek te warkàlla waaye man Assane damaa bëggoon bala ñoo tàggoo sëñ Fallou mu may ma ko sëriñ si ñu bari ñu ngi wax rek nee nañu Sonko ak Jomaay mii duñu ànd ba 2029 dañuy tàqale ko bu ma dara leen nitu yàlla fii nag bu dee moom mën na cee àddu dinaa la ko laaj yow en tant que yow li nga gis ci zahir ak baatin ñaar yëpp laay boole hmm. est ce que ñii yenn ci ñi di génn naan seen lañ ñu tàqalikoo gis nañ seeni i biddiw ak seeni i nàngam ndax gis nga ñaar ñuy ànd ba faw wala dangaa gis ku tàqalikoo euh, président Ousmane Sonko hmm. ak président Diomaye ñaari gor yuy ànd laa gis gisu ko tàqalikoo gisuma ay wor ci seen diggante parce que li tax gisuma ay wor bu ma indee waxuma la baatin bi waaye bu ma indee zaahir képp président Diomaye bu ko Sénégalais yi xamee ba teg ko fi ñu nekk c'est grâce à Ousmane Sonko mhm. te kooku doomu séeréer la te séeréer du wor mooy suñu deret ji mhm. muy benn mhm. beneen bi ci topp mooy président Ousmane Sonko mën da joxoñ euh, Sénégalais yi président Diomaye ba ñu xam ko teg ko fi ñu ko teg ba pare mu bunu xataal ko ba roccee ku taxawee ne bàyyi ko muy dem xel nangu xel nanguwu ko sax. kon sëriñ si lu leen animé ba ñii. kon moom est ce que est ce que Ousmane Sonko tey bu bunu xataaloon joomaay tey ci gàttal moom bu dee bu ñu eggee deux mille hmm. bu wax lu ñu gëm. waaw ah, waaw parce que après nit ñi dañ koy xoolaat. président Diomaye mii fi mu jaar ak Ousmane Sonko tey ñu ko ba teg ko fii ñu ko teg hmm. tey yi nga xam ne bu ñu ko toppee ñun xamuñu ko woon de hmm. Sonko tax ñu xam ko tey jii bu ñu ko toppee ba teg ko fii ñu ko teg topp ci kawam tey jii mu dem war Ousmane Sonko mii tey demal boppam ndax bu ñu eggee deux mille vingt neuf mën nañoo wax lu ñu gëm. wax nga ko mën a gëm kon ñaar ñii oh. seen diggante ku ci séentu ak tas oh. opposition bi nekk ci suuf xool luñ la tuuf kalaas ak Baye Assane gii tollu fa leen la waxal nangam waxal nangam nga di ko wax ah. waaye xam nga ne ñaar ñii maanaam dañ lay tuuf ñaar ñii kafeek oh. suukar lañ benn mënu cee dem sa dem bàyyi sa morom mbaa des naan wala xooyal naan mbaa xooyal tuur rek mbaa teg fa ba fa sëñ bi sant nañ la bu baax gërëm ah. la am mbegte bu baax a baax doon la dalal euh, xam naa rek di wax ni looy tàggoo waxtaan wi neex na waaye nag bi première partie la mën naa am bu ñuy defaat deuxième partie bi dañ lay fekk baari ndondol waaw waaw fekk leen ma baari ndondol saa yi ñëw ko te dem dem di mooy la yoon yi ma gis Assane weneen yoon laa Assane yow nag Assane santal yàlla oto bi ah, sant yàlla waaw waa kawe na waaye nag bu ah? mu ko yàq de te moom oto bu fay jaar léegi nga yàqu. te ñii dañu am bu yàqu ñu ah. na ñoo ñëw. waaw dinaa leen jël si ah, waaw waaw baax na loolu d' accord. waaw ah, dinaa dinaa dinaa leen bu fekkee da ngay bañ sa oto yàqu. fii may wax ak yow nii sax problème yoon yooyu. dinaa ci ñu waxtaan ci parce que maa ngi fa war a dem am ñu fa àndal. bëgg naa ñu dem def étude du milieu te dama bëgg nga ñëwaale jëlaale image yi loolu day rafet maa maa ngi lay ñaanal nag yàlla may la ñeenti soxna yu baax yu tolloo mu am ñaari am ku gàtt am ku njool am ku ñuul am ku xees. Oh. yàlla mayal la xolu mu ñu muñal la. amiin foo aay it keneen ci bañ koo xam te duñ la indil benn coow. amiin loolu laa leen yàlla soppi lay ba nga bàyyi ruubeeg tooñ. <laughs> kon sëriñ bi kontaan nañu. waaw naa baax sëñ son bu wax dëgg yàlla euh, Sénégal damay wax ne na woon euh, solution TV. Mm-hmm. ak son yi bu Diop. Mm-hmm. ak Baye Assane Mesra mii. Mm-hmm. Sénégal nañ leen bàyyi xel. yéen da ngeen a mën a waxtaan ak askan. parce que dafa am lu tubaab di wax sens figuré. Mhm. toujours Baye Assane day waxee à sens figuré. Mhm. Baye Assane buy wax da ngay jàpp ne dafa contré. Mhm. mais borom xel yi lay waxal. ku am xel te mën koo diglu. di dig teewlu ko bu baax. di nga xam fi muy waxee waaye boo amul xel maanaam li muy wax naan waxuma ak dof yi. kii moom waxul ak dof yi. ñi am xel waaw ñi am xel lay wax. yow nag képp koo xamante ne yàlla dogal na nga bëgg a wax. <laughs> xel mi ubbeeku na. te ku mën a wax ak ñëpp nga ku mën a maslaa ak ñëpp nga. alhamdulilah te loolu moom mooy journalisme. alhamdulilah da mën a wax ak ñëpp mën a def ak ñëpp. te lool la gis ci seen jëmm yi. kon télévision bi nañ ko bàyyi xel. bu baax tey xool li fi jaar. ndax gis naa ne yéen maanaam dara yitteelu leen. lu lu. doxal réew mi. alhamdulilah dëgg la damay wax ne solution bi ngeen di wax sax man problème laa ko tudde parce que Assane fii bu fi toggee bu fi jóg ay problème lay suuf. <laughs> ay problème rek problème sur problème problème sur problème man bi may ñëw moom laa njëkk xalaat maa ngi naan man baa du ma dem ba Sandiogou di ma ruube ba mu yàgg ma jékki ne paasan xam naa fa lay nekk di ma kaaj waaye xaaral ma dem naa ko jat bi ma ñëw nag ay jat naa ko de jat naa ko de gisoo bi ma ñëwee ni mu xaw a yaroo nii dama ko jat jat naa ko maa ngi leen di ñaanal bu baax nag <laughs> waaye di nuyu mbooleem euh, waa Sénégal gépp euh, suma président euh, monsieur Diomaye Faye hmm. di nuyu it bu baax premier ministre Ousmane Sonko sama xarit Birame Souleye Amadou Ba député di di ko nuyu bu baax waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk gouvernement bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen wax ne it nag nañu xam ne tas nañu assemblée bi démb nañu bàyyi xel ñi ñu war a yóbbu assemblée waaye tas assemblée jële fa ay nit ngir ay jikko ak melokaan yóbbu fa ñoo xam ne ñoo gën a yées ñoo ñee bu mu leen dal nañu bàyyi xel bu baax li ñu bëgg a def xool ñi ñuy dugal ci liste yi macha allah ak ñi war a àndal am na Matlabul Fawzeyni mm-hmm. maa ngi nuyu bu baax Guèye mm-hmm. euh, Mouhamed Guèye mm-hmm. euh, nga xam ne ci wàllu sécurité bi ak chef de protocole bi yëpp moom moo ko yor Adama Fall suñu Cheikh ñi ma àndal ak ñenn ca kër ga yëpp di nuyu nag soxna yi soxna Ndey Mbay euh, soxna Assu Ngom soxna Maam Jaara Dieng maa ngi leen di nuyu waaye di ñaanal bu baax sama ñaari waajur ko ni ma ko ubbee woon sëñ Xaadim Ngom soxna Fatou Ndiaye suñu borom yàggal leen waaye damay beral nuyoo nag ki nga xam ne it mën naa wax ne sama cër ci sëñ tey bu eggee fi mu egg ba àdduna gépp xam ko ci moom la ko jaarale muy sëriñ Maam moor Mbàkke borom saam ibnu Cheikh du Falilu moom sëriñ Touba di sama xarit di sama baay di sama soppe di lépp nga xam ne mën naa ne fulla ak fayda ci réew mii moom lañ ko ci xàmme ak liggéeyal borom moom jàng alxuraan ak xasida tey tedde aw ñaqam loolu lañ ko xàmme man lii may dund ci moom laa koy royee ci moom laa koy xool mu bëgg ma lool nag mhm. askan wi ñëpp bëgg ko kon maa ngi koy ñaanal bu baax mhm. mu yàgg fi lool di ko ziar Mbacke Balla mhm. mu ànd ko wér waaye di ko ñaanal njabootug Sëñ Tuubaa yëpp waaqiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Sëriñ Xaadim Ngom am nañu mbégte bu baax dalal la ci euh, taxaw bi parce que bi ñu euh, xamante nañu lu yàgg parce que xamoon nga ma ma xam la xame bu yàgg la depuis ci azal la ñu waaye nag bi ñu commencé gisante mooy ci réseau yi. Mhm. waaye bi ñu commencé di euh, jokkoonte yàggul mais ci diggante bi gis nga dafa ni famille mhm. nga Assane maa ngi yéemu sax. kañ ngeen mhm. xamante. ba mu yabee leen. musu ñoo wax loolu lépp musu leen wax. <laughs> te musu ñoo wax waaw mi ngi doon xoolaloo rek loolu li koy wane rek moom ku oyof la mooy tam ku baax la. <laughs> en tout cas lépp loo nekk jàppal ni mm. solution mm. te mm. bi mu créé leen ñu liggéey. dañu nag lii du lenn ni kenn ñëpp la. Assane ay faral di waxee lépp loo nekk rek te muy doxal réew mi. solution joxe ab dig ba àjjuma. waaw xanaa ba xanaa sant yàlla bu baax rek euh, gërëmaat sëñ xaadim ndax it. waaw nga gërëmaale sëñ Fallou Gumbala. sëñ Fallou Gumbala ñu ngi koy gërëm bu baax boo dee xool sëñ xaadim nee na la. boo toogee nit bu dana wax. Mm-hmm. émission bii ñuy def damay ñëw bu ma ñëwee ba toog nii xam nga duma xam lu ñuy waxtaanee mais du ma indi dara. Mm-hmm. day teg élément ba élément ba jeex du ma sa xam dara. Mm-hmm. mais suma laajee man ma mën a wax. moom su ma laajee rek man damay man mën naa teg élément ba élément bi jàll du ma xam lu ma war a wax. waaw mais moom su ma laajee rek man damay mën a. waaw a wax nga wax noonu. Mhm. ko teg fu wér na. waaw ku toog ak moom bu bëggee wax da wax. da nga wax waaw. macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. yow di la ñaanal sunu borom gën laa dëgëral ba yéen ji nga am pour liggéeyee sam réew yéen ji nga am pour liggéey l'islam ak li nga nekkit ñaanal la sunu borom defal la si ay ndam yu bëri te nga wutal ma ab jaaro jaaro bu baax boo xamante ni macha allah naa si mën di buñ la ko takkalee nga tukkalaat. laat jaaro bi kay une fois moom une fois nga. jaaro ko takkalee jox ma jaaro bi rek. jaaro bi da nga may jox jaaro jaaro bi. jox ma jaaro bi jaaro bi kenn du la ko takkal. da ma jox jaaro bi ko jox ma jaaro bi da nga naan ko dinaa ñëw kër ga jox ma waaye jox ma jaaro bi bii laa bëgg moom. Ah. moom mënoo koo takk. duñ la takkal jaaro bi nga tukkalaat. waaw jox ma rek baax yow su ma tàmbalee tukkal laaj ñu jox la. waaw bu ma tàmb di ngeen dumatee <laughs> bu ñu nee sëñ bi dugg na ci koñ bi nga génn ca koñ ba ca des <laughs> léegi <laughs> mooy su ma commencé tukkal nga jëlaat. di waaw di nuyu it Sa bu baax nag. vraiment nit ku baax la Sa Ndiogou waaw. Mm. Mm. Euh, bi muy nekk Walf laa ko tàmbali woon di suivre. muy nit ku baax koo xam ne daf ma daan reetaan loolu baree baree bare. Mm. waaye li ñaan ak yokku rek garab ci kaw lay sutante. da toll noonu tollu gudd yoo xam ne dama daan wax ne sax. bëgg naa ko gis bu ñu demee tey ba yàlla dogale ko nii lépp ak yokku la ba ci yéen ñi it dama ko daan wax sax man doog mi ne man ne am na benn jour benn waaye dama may werante ak moom ma ne ko gars yi Touba lañ dëkk hmm. mu ñu ne dëkku Touba ñu ne waaye son yi bu na la dëkk Touba xanaa xooloo <laughs> ne ko ah yéen ne ku sol <laughs> boobu ñu ciy kii ba tey gis nga yàlla ni mu ko dogale kon loolu yëpp ak cant la yàlla dooli leen tawfiix bu baax dooli leen sutura ki xéewal barke Cheikhul Khadim yokk wërsëg bi bég nañ bu ayca tëjal Assane. waaw jërë ngeen jëf mbokk yi kon ba beneen yoon incha allah. man la Mamadou Lamine Bara Diène bu wal fajri maa ngi déglu émission ci ngeen bokk ci laa bokk. man Babacar si la borom islam wal xaya maa ngi déglu ci ngeen bokk ànd ak Chouaïbou Diop. man Boubacar Diallo soppey sëñ Souaïbou Diop sëñ Souaïbou